bismil ilaahi askurul murida wa artajim bi fatlil masida bismil ilaahi askurul murida wa artajim bi fatlil masida sahaltu an yutifal murida min judil ma ajazal adida min al ulumi wa min al arzaqi fatlan wa min maazini axlaaqi أسأله بالله وبرحمن وبالمؤمن وبالمنان لا تجتون وخير في الأمر فلا أرم منة للخير إني الأبيد للقني الوالي أرجو لي وكل من يوالي هو العزيز غير سليل هو الكريم وحيب الجليل أروم لأعباب كل يسر والتكفي يا رب كل عسر لا ضر فقر ولا يشلت هالم أقدام يا من يفسد رفعت فضلا بذكرك العظيم فأحنم ضرا بفضلك العميم عميتم عن ذكر كل خير فأملأ قلوبهم بكل سر مالك ديار وأنوارا ونجيم آتما فارا أقم وجوههم لدينك الغويم ومردافهم بفضلك الجزيم نرهم وزدهم بقدر الشنق كل مريد وبقدر الشوق إني الأريد منك بل وتغلمون إني الأريد محدب الوطرام لك ومنك suma fiika kullama talabtuhu wa anta tuutili kama rajawtu innani rajawtu minka bi kulli ma sa'altu ilayka azim qawatima wala hulluna wa aqtina fatala wallina ya man yujibu dahwata almustari faltaksiban ma mazani mudari musalliyan ala nabi mustafa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 salaamun alal muxtaari yajdil wujudi markazil asraari sirru sukuni wa majmail anwaar wa radiyallahu an qutbil maktuumi wal barzaqil maknuun wal qaatimil muhammadi maxluum saydi wa mawlaaya saydi ahmad ibnu muhammad attijaani radiyallahu anhu wa raximallahu an abil fiyoodaati wal barakati sahaadatul anaam mawlaana seex al islaam alhaaji ibrahima baay radiyallahu anhu ñu ngi sant yàlla di julli si yonent yàlla muhammad sallallahu di ñaan ngërmande yàlla wàcc sunu sëriñ seydi wa mawlaaya seydi ahmad ibnu muhammad attijaani radiallahu di ñaanal ki nga xamante ne mooy seen xalifa kii mawlaana cheikh al islam El Hadji ibrahima baay radiallahu anhu ñu ngi ñëwaat beneen yoon ci seeni émission bi nga xamante ne ñu ngi koy def saa su nekk di tàkkusaanu nabi fii nga xamante ne mooy Senewood TV tey nag ñu dalal fi ñi nga xamante ne tey xàmmee nañ leen ci pays bi dëgg-dëgg ñuy njaboot si ki nga xamante ne mooy Cheikh Baye Modou Ba nekk fële ca Joal ñuy liggéey liggéey bu rafet ci faydu Mawlana Cheikh Ibrahim bi di ci jiital ci nuyoo bi ki nga xamante ne mooy Cheikh Moustapha Leyla moom ñu koy nuyu di ko ziyaara di ko wàccee wàccuwaayam di ko ndokkeel te di ñaan yàlla yàlla yàlla defal ko tawféex ci li nga xamante ne moom la ñu bëgg a tàmbale léegi di ci toftal ki nga xamante ne mooy Zeyda Mama Khady moom it euh, nekk jàmbaar comme niñ ñu ko waxee dëgg-dëgg jàmbaar la ci pays bi ndaxte waxtaankat la ci pays Maulana Cheikh Ibrahim te waxtaan ci pays Maulana Cheikh Ibrahim bi yombut ndaxte ay borom xam-xam ñoo fi nekk moo tax dëgg-dëgg ñu ngi koy ndokkeel di ko ñaanal yàlla defal ko tawféex ñu ngi nuyu di ziyaara ñi nga xamante ne ñooy zakir yi nga xamante ne ñoo doon tudd yàlla di Baye Tamsir zakir ak Baye Mbaye zakir ñu leen di ndokkeel di leen nuyu di leen ziyaara waaye ñu ngi di ziyaara li nga xamante ne mooy Medinatu Cheikh Ibrahim tàmbalee ko ci ki nga xamante ne moom mooy xaadimul ummati di Seydi wa Mawlaaya Seydi Mouhamadul Mahi di nuyu porte parole am ba Cheikh Mouhamadul Mahi Cissé radiyallahu anhu di nuyu mboolem njabootu Baye ak mboolem muqaddamu Baye ak képp koo xam ne rek yaa ngi liggéeyal diine lislaam kon ñu tàmbalee euh, jotaay bi ñu ngi jox ki nga xamante ne mooy Cheikh Moustapha Layla moom mu nuyoo présenté wu incha allah bu ko defee ñu woyal programme bi sëriñ bi tafadal masool aywa alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi lazi taqaddasa fi haybil haahooti almutajalli bi asmaihi wa awsaafihi fi hadrati llaahooti wa bi asraarihi fi hadrati jabarooti wa bi anwaarihi fi hadrati malakooti wal ajuraamu mutasakkulaatu wa suwaru fi hadrati naasooti wasalaatu wasalaamu ala seydina muhammad seydil awalina wal ahirin wa radiyallahu an xalifatihima mawlaana seex tijaani radiallahu anhu abil abbas qaala cheikh ibrahim assalaamu aleyka ya cheikhana ahmada tijaani ya qaatimi l awliyaai wa radiallahu an xalifatihima mawlana cheikh al islam alhaaji ibrahim ñas aadatul anam alqaa'ilu saaqani latifu nahwa kan kan wa rabbi ataani makkaama kun kun mm-hmm. wa tiisu sadri sama bil askaari wa limla wa xatmuli ah bil anwaari wa bil xaqaaiq wa bil maarifi wa sirri sirri sirri wal amaarifi amaltu sirral xaatimil wilaaya jamatu bayna zawqihi wa diraaya wa zaadallahu faydan wa madadan wa anwaaran an cheikhina wa wasilatina ila rabbina maulana wa maulakum maulaya cheikh mouhamad amin ba ibnu maam aliyin ba al kabir aminullahi fi l ardi ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa waaye di ñaan ngërëmande yàlla si ay xalifa ak yonent bi sallallahu wa sallam lu ko tàmbalee si Maulana Seexu Tijaani mi nga xam ne moo doon yonent bi si sirru ba si nafsu di sant Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu moom mi nga xam ne moo doon Maulana Seexu Tijaani si sirru ba si nafsu di nuyu waa plateau bi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel di leen ñaanal yàlla. di sàkku seen ñaan waaye duñ ci jumug lu dul nii na ñoo xam ne tey ñoom ñooy tànneef yi si faydu bi askano si cheikh ibrahim ñu ngi nuyu di ziyaara sunu xalifa mooy cheikh mouhamadul maahi xaadimul umma nga xam ne dafa liggéeyal diine lislaam liggéey boo xam ne la xaw bi waxoon bàyyi la ma yumkiru samsa di sax wil jaw bi dafa liggéeyal Cheikh Ibrahim liggéeyal diine ji liggéey boo xamante ne gumba rek moo ko gisut waaye ku bëtam leer gis nga ne kii ku jihaadal diine lislaam la kon ñu ngi koy ziyaara moom mi nga xam ne mooy xalifa Mawlana Cheikh Ibrahim tey moom mooy bàyyi si ñun ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam yàlla wéral ay cëram waaye suñ ko nuyoo nuyu nañ mboolem rakkam yi waaye di nuyu ki nga xam ne moo teewal bàyyi ña si fii si Dakar muy Cheikh Mouhamadul amin waqiilu daali muy baaba lamin ñu ngi koy ñaanal fan wu gudd ak wér waaye ñu ngi nuyu imaamul akbar muy imaam Cheikh Cissé mi nga xam ne dëgg-dëgg imaam la si biir imaam yi da nga xam ne tànn ak Cheikh Ibrahim la moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla yalla yàlla guddal fanam di nuyu porte parole Cheikh Mouhamadul Mahi mi nga xam ne woykat bi bi mu ñëwee di ko woy dafa ne Cheikh Mouhamadul Mahi mooy royukaayu ndaw yi Mahi Cissé waaye ñu dégg si sang bu tedd bi mu ne bu ñu wax ndaw ñi waaye mooy royukaayu kubaraa yi mooy royukaayu góor yàlla yi mooy royukaayu waliyu yàlla yi kon ñu ngi koy ziyaara di ko ñaanal fan wu gudd ak wér di ndokkeel suñu sëriñ Mawlaaya Cheikh Mouhamad Ba mi nga xam ne moom moo ñu yabal fii nga xam ne plateau la boo xam ne dañ fay war a waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Mawlaana Cheikhu Tidiane ak Mawlaana Cheikh Ibrahim di nuy niñ àndal mooy Tamsir Zakir ak Mbay Zakir ak Zeyda Mama Khady di nuy jiili bu baax nga xam ne moom soppe la su ñun waaye nit ku baax la doy na rek biñ déggee xibaaram ñu ne ku bëgg Mawlaana Cheikh Tidiane la te ñun Cheikhu Tidiane radiyallahu anhu moo ñuy dundal incha allah si kanam tuuti dina leer salaamualeykum wa rahmatullah. macha allah sëriñ bi kontaan bu baax a nga xam ne dëgg-dëgg kàddu yiw ñu ngi jox Zeyda mama moom it alhamdulillahi wahidin ahadi samad man kaana wala shay'an ma'ahu wa huwa lana ma alayhi kaana wasalaatu wasalaamu ala man araqa fi bahri jam'i ayna al ayni wa ala alihi ayni al haqqi haqqan qadrihi miqdaari azim wa an xalifatihi mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu wa an xalifatihima mawlana Cheikh Ibrahima Niass shahadatu anam gannaaw ba ñu sante yàlla waaye di julli si yonante bi sallallahu wa sallam di leen nuyu yéen ñëpp nekk seen tur ak seen sant waaye di jiital nuyoo bi suñ sëriñ suñ sang di Mawlana Cheikh Mouhamad Ba di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko aar ko guddal fanaan si jaahid Mawlana Cheikh Tidiane waaye di nuyu mbooleem plateau fi nekk yëpp ñu leen ñëpp nekk sa tur ak sa sant xaq qadrihi miqdaari azim macha allah ñu ngi baax a baax ñu ngi lay fay nuyoo bu baax macha allah ñu jox Baye Tamsir moom it mu nuyoo wala kulli xaalin incha allah. Eh, alhamdulilah alhamdulilah amrana bi taqwa tiqa wasila wa hadana ala dalabi darajati rafiati wal fadila wa amrana amran bada fi bi nafsi wa zanna bi malaikatu qudsi wa salaasa bil muminina insi wal jinsi wa xaala tasrifa li nabi wa takrima inna allaha wal malaikatu yusuna ala nabii يا أيها الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم تسليما يصف وادي ويخلو عيسوين بدا ربي من بيولاه يختل المدرو ñu ngi sant yàlla di ñaan gërmande yàlla ci xalifa mu yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan gërmande yàlla ci xalifa yonent bi muy Mawlana Cheikh Tidiane di ñaan gërmande yàlla ci xalifa Cheikh Tidiane mooy Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu di ñaan gërmande yàlla ñu leen dajale ñëpp nga xam ne mooy Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ñu ngi nuyu mbooloo mi nuyu ñi nga xam ne ñoom lañu fekk si jotaay bi waaye di nuyu képp kuy siifal jotaay bi ñu ngi lay nuyu du nuyu waa pay bi ñu ngi nuyu imaam ba ci ku gën ndaw ñu ngi nuyu ñëpp daal ñu ngi nuyu ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa macha allah Cheikh Baye bismillah li zaatil baari wa salaamu basril wujudi markasil asraari siril shuwani majmuul anwaar ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi salallaahu alayhi wa waaye di sant xalifa Mawlaay Cheikh Tidiane radiallahu anhu di sant seen xalifa ñoom ñëpp Mawlaay Cheikh Ibrahima radiallahu anhu waaye di wàcc ba suñu sëriñ Mawlaay Cheikh Mohamad ba di ko ñaanal yenn na yàlla guddal fanam may ko wér saxal ñu ci ronam daay man <coughs> waaye ñu ngi nuyu mbokk mi nga xam ne moo ñu dalal ci émission bi waaye ñu ngi nuyu suñu sëriñ nga xam ne dëgg-dëgg moo fi teewal sëriñ bi muy Cheikh Moustapha Leyla nga xam ne boroom xam-xam la bu ñu ràññee ci réseau yëpp nga xam ne moom la sëriñ bi bàyyi géeréw muy liggéey liggéey bu rëy foofu muy tarbiya ay nit di leen yeggale ci yàlla di joxe xam-xam chaque jour di joxe ay darsu foofu ñu ngi koy nuyu di ko wàcc wàccuwaayam nga xam ne ñun mooy suñu sang fii ci plateau bi ñu ngi koy ñaanal yal yàlla dëgëral ko. may ko fan gudd ak wér di nuyu suñu Zakir Kabir nga xam ne Zakiru daayira bi la. fépp programme am ci daayira bi moom moo fay teew dëgg-dëgg euh, teew fa teew boo xam ne zikar fa zikar yoo xam ne da ngay xam ne kii li muy sikare xaqam la ko jox. kon ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla dëgëral ko ak Mama Khady yaakaar naa réseau yi foo tourné da ngay gis vidéo ci réseaux sociaux yëpp moom it ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla dëgëral ko nga xam ne ku am ku sëriñ bi am yaakaar ci moom la dëgg-dëgg ñu ngi koy ñaanal sëriñ bi yow ñu ngi lay ñaanal bu baax ñu ngi ndokkeel ñëpp ñu ngi jéggalu incha allah ilaa macha allah jërëjëf alhamdulilah beneen yoon ñu ngi santaat yàlla di wax rek ne bisi ñu ngi waaj ci tàmbale li nga xamante ne moom mooy jotaay bi comme ni ñu leen ko waxee waaye dëgg dëgg laataa ñuy dugg ci jotaay bi dinañ leen xamal ne ne jotaay bi nar na dina nekk incha allah jotaay bu spécial jotaay bu bokkut ak yeneen jotaay yi ndaxte dëgg-dëgg dajal nañ fii ay tuddkatu yàlla yoo xamante ne dëgg-dëgg óolu nañ ci seen làmmiñ ci tudd yàlla waaye borom xam-xam yi nga xamante ne dëgg-dëgg óolu nañ leen ci xam-xam gi nga xamante ne ñu ngi koy génnee waaye duñu fàtte mukk di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñooy internetu Senewood TV yëpp ñu leen di nuyu di leen ndokkeel di leen ziar bu baax a baax di dalee ko nag ci ki nga xamante ne moom mooy euh, Delmali nga xamante ne wax dëgg neex yàlla moom ku sonn la ci mbëkk ci pays bi wax dëgg neex yàlla ndaxte lépp lu pays bi soxlawoo ci programme bu ko couvrir rek dana ko teewee te xaaru ci dara rawatina rek man sama programme bi. dama jékki-jékki rek mu yónneel ma ndaw mu ñëw couvrir programme bi yépp kon dëgg-dëgg ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di sàkku it ngeen ñaanal ko yàlla incha allah bu ko defee dañuy bàyyi zaakir yi ñu tàmbalee si kar si aca bismillah sëriñ bi inni bi madika asdu inna woonu sako fa innaka alxatmi walmaktumu walmaliku inni bi madika asdu inna woonu sako fa innaka alxatmi walmaktumu walmaliku inni bi madika asdu inna woonu sako fa innaka alxatmi walmaktumu walmaliku inni bi madika asdu inna woonu sako fa innaka alxatmi walmaktumu walmaliku kutimta fi adratil aq الحق ليس سوى المختار يدريك لا إنس ولا ملك إني بمدحك أصدو إنه نسك فإنك القدم والمكتوم والملك كتمت في عضلات الحق ليس سوى المختار يدريك لا إنس ولا ملك إني بمدحك أصدو إنه نسك فإنك القدم والمكتوم والملك لكن تجليت للأكوان جملتها إس أنت أنت ومنك فلك والفلك إني بمدحك أسطو إنه نزق فإنك الختم والمكتوم والملك لكن تجليت للأكوان جملتها إس أنت أنت ومنك فلك والفلك إني بمدحك أسطو إنه نزق فإنك الختم والمكتوم والملك اهدي الأبيد صراطا يستقيم به فإن برا معزى سون سكون إني بمدحك أسطو إنه نسك فإنك القدم والمكتوم والملك اهدي الأبيد صراطا يستقيم به فإن برا معظى عصو نسك إني بمرحك أصدو إنه نسك فإنك القدم والمكتوم والملك قد استقصت عوى نفسي إلى لسا دللت أي دلالي دلت النبك إني بمرحك أصدو إنه نسك فإنك القدم والمكتوم قصوى المرامي اقتداه درني سنتي أنام من أجفوني والأوال كوكو إني بمدحك أصدو إنه نسكو فإنك القتم والمكتوم والملك من للبرد جماهل عن قوايتها من للبتافل آل ليل يلخسكو إني بمدحك أصدو إنه نسكو فإنك القتم والمكتوم والملك أمير نحو سليمان تارة ولي لي صهود تارة ولي ليلى إن ضافكو أميننا وسليمان تارة ولي شهداء تارة ولي ليلى إن ضافكو أميننا وسليمان تارة ولي شهداء تارة ولي ليلى إن ضافكو أميننا وسليمان تارة ولي شهداء تارة ولي ليلى إن ضافكو منايا أن تحلب الأسوى جملتي آما سنا بسوى ليس لي دركو أمين يهنا وسليمان تارة ولي شعر تارة ولي ليلى من زافوك والله لو كان زافوت القرون ما أنقم قد جنيت نباتي فيه مستبيك إني بمدحك أفتو إنه نسك فإنك الختم والمكتوم والملك أسكي صلاة وتسليما على سند وآل وصحب وانسقها ملك إني بمدحك أفتو إنه نسك فإنك الختم والمكتوم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 ilaha illallah la ilaha la ilaha la ilaha la ilaha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 من سخسا الغينا وما زق أغلى البول إذا عرفوا المينا كذلك أمر الحق والبطل زاهقون وأذكر في ميسي الله غين والغينا فدع عنك النقطة الغين فالغين زائر فالنقطة عين الغين عبد لك الغينا فسوقي للعبد الله أحمد سيدي محمد مختاري قد سغزها الغينا ولكن ذاك الزوخ خير مصاصحنا وأين دواء السوق يا جيرتي عينا وذوق إلى ذاك الجناب دواخه حرام فلا نرجو صفاء ولا أصنا صلوت عن البيد هزان ما طهر جمالك عبد الله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 tàmbali rek ci Zeyda Khady Mama Khady euh, ndaxte zakir yi rek ubbi nañu waxtaan bi ci yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa comme ni nga xamante ne noonu la ko bàyyi jàngale waaye man damay wax ma ne euh, li ma lay njëkk laaj mooy kan mooy yenent bi sallallahu alayhi waaye ci ni ko bàyyi jàngale alhamdulilahi jamiu shuuni alxalqi min shahni faylaqi فعيني وكلكالي والترش واللقلق قلامي والنقس قد هدمت لذكره بذكر رسول الله قالوا وارتقي جليل جميل خلق ذكر ربي بصير نظير رب الشدق مشدق وعن حليفتي مولانا الشيخ تجان رضي الله عنه wa an xalifatihima mawlana cheikh Ibrahima Niass shahadatu anam alhamdulillah gannaaw ba ñu sante yàlla moom moom nga xamante ne wax na ni taarifuuni qabla an taabuduuni wa in lam yaarifuuni fa kayfa taabuduuni mu ne xam leen may njëkk balaa ngeen may jaamu mu ne soole ma xamutee ata ana naka ngeen may jaamoo waaye di sant yonante bi sallallahu alayhi wa moom mi nga xamante ne moom moo ñu indi teraangay àdduna tey tax Maulana Cheikh Ibrahima Niass dafa jël dundam yëpp financé ko si tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax bàyyi koy tagg naan ko tabibi qaribun hal si qaamiya tashmaun yuqaabiluni yawmil muqaffan mustafaaw araani iza ma jitu yawman muhammadan tahaqqaqa amali kama tawaqaw muhammadu xayrul alamina wasilati xataa ka dimu daariwul yata safan bàyyi mu ne tabi bi sama mestin bi xaribun jege si na hal si ya tashmaw ndax sama jàngoro bi ndax yaa ngi koy dégg mu dina dajeeg man yowmil bésu tey ji al muqafal mustafawu mooy ki ñu xenc mooy ki mu ne araani gis naa ni isa ma jitu yowman saa yu ma dikkalee yowman bés muhammadan muhammad bàyyi mu ne taxaqaqa dafay dëggal amali samay mbébét kama tawaqaw comme ni ma ko foogee waaye mu ne Muhammadun e yow Muhammad ayrul alamina yow mi gën si mindeef wasilati yow sama wasila ataaka dikkal na ma xadimul mindaan daariwu kuy torow yata safon ku sàkkuram moo tax Mawlana Cheikh Ibrahima Niass façon miti lan bu nekk def nañ ko ko Mawlana Cheikh Ibrahima Niass génn nañ ko kër baayam ndax lan bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallama moo tax bàyyi ngi naan lay sali yow ma xalilu ليس اليوم خليل مامباي خير ما منك أتاني مامباي خير هذا قد قلاني مامباي عازلا لكل آني مامباي الزقود انت جهارا مامباي أخرجوني من مكاني مامباي حراني مامباي حكم تاخر في الجنان مامباي أيوة ليس لي يوم حليل أمتما حري samay doomu baay sama dëkkandoo yëpp bàyyi nañ ma xayru maa min ka ataani ku dul yonent bi sallallahu bañ na ma bàyyi mu ne azilan aji ñeddali ñeel ma kulle aani bépp jamono baay mu ne mazaqu xotti nañ jumti sama der jihaaran ak janoor baay mu ne axrujuni ñu génne ma min maqaani sama kër baay ñu ne ko a Cheikh Ibrahima Niass ana lan nga def mu ne duuna zanbi ayraani dafa ma benn bàkkaar dafa ma benn njumte baay mu ne xubbu taaha fil janaani bëgg yonente bi sallallahu sallam bëgg yonente bi ma génne sama kër baay moo tax Mawlana Cheikh Ibrahima Niass dafa ziyaara ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bay wàññeeku yonente bi ne ko mhm. ayyo Cheikh Ibrahim a tazhabu an la ndax da ngay dem bàyyi ma bàyyi na ko wada'tuhu la absa'tuhu wida'ahu jarata muminin bal fu'adin mujarrahu mhm. bàyyi mu ne ko maa ngi lay tàgg yow yonente bi sama xol baa ngi jàpp sama rongoñ yaa sotti ay bu may dem ngir baale yow yonente bi yonente bi ne ko xas loxo bi si bàmmeel bi mhm. na ko Ibrahim moo tax baay waxoon ne fa suratu ibrahima tabqa tazakura isa xaaba lil mawla aliyata fakura baay mu ne mata دفنوني في التراب تحدثوا لقد كان ينوي خيرا لو كان مخسرا بايمون في سورة إبراهيم ملاب إبراهيم تبقى دفعين دستذكرا نكي فاتلكو كين بايمون إذا هاب سجلو للمولى جمس برامبي العالية جيكي من متى دفنوا سيما السولة في التراب السوسي est-ce que Mawlana Cheikh Ibrahima Niass la ñuy suul si suuf si lii bàyyi xadi si suuf wallahi lazi mu ne ma taa dafa nuuni su ngeen ma suulee fi turaa bi si suuf si te xaddasu na ngeen may waxtaanee mu ne la xat kaana dina nekk yan yi sama yéene xayra lépp law kaan li mushra donte nekk naa man Cheikh Ibrahima di gàttal li moo tax bàyyi mu ne bi fadli ilahi nnaasi jalla jalaaluhu wa xubbi rasulillahi taaha nabiya xalaftu yamina innani laa yuhibuni siwa ashhadu wala sufil xaalil buxutiya bàyyi mu ne bi fadlil ilaahi naasi ngeen la bi yàllaa nit ñi jalla màgg na jalaaluhu ak màggaayam ba bàyyi mu ne wa xubbi rasulillahi ak bëgg yonante yàlla bi bàyyi mu ne taaha kay taaha nabiya kay yonanti bàyyi mu ne xalaftu maa ngi waat man Cheikh Ibrahim yaminan ak ak waat ku nekk xam nga ni waatu baay ji baay du caaxaan bàyyi mu ne inna ni naka man baay laa yuhibbu nii du ma bëgg siwaa ashad li mooy ci gën a texe bàyyi mu ne wala su safaanab texe nag fil xaalib buudiya mu ci xaalib ki ma bañ moo tax Mawlana Cheikh Ibrahima Niass mu ngi tagg Mawlana Cheikh Tidiane moo tax mu ngi ko ne araa xubbu Cheikhi Ahmada xatmi qaatili wa laysa hawaa fi lfuaadi bi zaa'ili fa kabbi بحب الشيخ حر وعدلوي فسرت السفيعا دائما غير العاقل عرب سيقي أحمد القتم قاتلي وليس أواه في الفؤاد لي بزائلي عرب شيقي أحمد القتم قاتلي وليس أواه في الفؤاد حب الشيخ بق مولانا الشيخ جاني باي من أحمد كي أحمد ختمي أحمد بن حمانتني مومو كاست ولاية باي من قاتل رينما bàyyi mu ne wallay sa déet xawaa um mbëggeel bi bi zaidu dañ fil sama xol bi bàyyi mu ne fa kab bi sama res xarra mu ngi tàng waanduli ak samay faar bi xub bi cheikh yi ndax bëgg maana cheikh Tidiane xaqa qadrihi miqdaari azim macha allah Zeyda dëgg ne yàlla dolliwaat nga ñu ci yeneen ci yàlla Mouhamed ci mbindeg Mawlana Cheikh Ibrahim mm-hmm. yàlla na yàlla yokk xam-xam bi amiin yaa rabbi ndaxte dugg ci diwaan waaye dugg ci jaamihul jawaamir mhm. ndaxte dugg nga ci bunte tabiib xariibun damay wax sax saa su nekk gars yi bu déggee si kar soosu di foog na ne néew bu ñuy tàggee la mhm. ndaxte bëri na ñoo xam ne sax keroog maa ngi ko gis ci bi waa ji di wax mu ne man bu leen ma tegal woy woowu ndax woy woowu woyu tàggee te man jéewoo ko kon dëgg-dëgg ñi ngi xamuñu Baay kan lay waxal foofu mhm. ndax Baay mi ngi wax ci Yonent bi sallallahu alayhi wa ci biir sax da koy wax mu ne falaw sawwaruni fil haqiqati lam yaraw ci mhm. waa shakhsin mahbubin bihi yatamattaa waaye dëgg-dëgg wax nga ne Baay dundam bi yëpp da koo jeexal ci bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ci diwaanu sitta bi sax fa waxti wa saati saraftu bi zikrihi mhm. salaatan wa daan qad sixtu jaylama dëgg-dëgg kawe bi mu kawe ñëpp bëgg Yonent bi la sallallahu alayhi wa ak taawam bi nga xamante ne dépensé na ko ci tudd yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye dinañ ñëwaat ci yow ci yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañoo bëgg dëgg-dëgg euh, Cheikh Moustapha duggal ñu ci fi nga xamante ne fa nga laaloon léegi mooy Seydi Ahmad Tidiane radiyallahu ki nga xamante ne Baye moom la waxoon naan ko dëgg-dëgg xatmul wilayati sultaanul wilayati baabul lil wilayati miftaahul wilayati dëgg-dëgg mm. naan ko xalifatullahi ramzul kawni ruuhu hmm. kon Seydi Moustapha bismillah ah alhamdulilahi rabbil alamin Seydi Djily Barham woo nga ñu si la olof di wax ne wo nga gaana si guuxum sow mooy wo nga ñu si koo xam ne dañuy sawar si waxtaanee ko muy Mawlana Seexu Tijaani radiyallahu anhu ñun nag dañoo am feebaru Seexu Tijaani la baay waxoon li qalbiya suqrun wal xaraamu saraabu fa isa suqtuhu fal qalbu minhu saraabu baay ne li qalbiya suqrun sama xol baa ngi mandi maa ngi naan tat si bëgg Mawlaana Seex Tijaan fa isa suqtuhu fal qalbu minhu saraabu baay ne saa wu ma yittewoo Seex Tijaan rek si sama xol rek minhu ñeel ñeel Seex Tijaan su ma ko sama xol saraabu damay mujjee doon ñu ñun dañoo am nattu si seexu tijaan ngir suñu sëriñ ñun ñu nandalee si Maulana Seex Tijaan ñun na suñuy waxtaanee seexu tijaan yi dinañ waxtaanee koo xam ne moom la Aïssa jur ak Abdallah waaye dinañ waxtaanee koo xam ne it moo fi jiitu Aïssa jiitu fi Abdallah ndaxte moo ne kuntu waliyan aarifan bi wilaayati wa aadama baynal maa i wa tiini nekk naa di waliyu ba xam ne man waliyu laa boobu aadama bu ngi si diggante ndox ak ban waaye Cheikh Tidiane moomu la woykat bi wax léegi sikarkat bi bàyyi bu mu koy tàgg ne inni bi matika astu innahu nusuk fa innaqal xatmu wal maktumu wal maliku inni bi matika astu innahu nusuk fa innaqal xatmi wal maktumu wal maliku أتمت في عطرات الحق ليس سوى المختار يدرك لا إنس ولا ملك لكن تجليت للأكوان جملتها is anta anta wa minka fulku wal falaku idil bayda siratan yastaqimu bihi fa inna barahamu anda hasul saku daa xool seexu tijaani bàyyi ne inni naka man bàyyi ñas bi mat xika si tagg la yow Mawlaana Seex Tijaan asdu si laa yuuxu saa wóorum gisee man bàyyi may jooru du yuuxu rek xam ne ne damay tagg Mawlaana Seex Tijaan innahu na ko moom Seex Tijaan nu sukku mooy jaamu mu ne wa inna xalxat mu wal maktumu wal maliku mu ne Cheikh Tidiane mooy ki tëj te moom lañ tëj te mooy buur bi Cheikh Tidiane moom lañ mooy ki tëj te moom mooy kiñ tëj te mooy buur bi dig la ñu tëj kiñ tëj comme ni ko sunu sëriñ di waxee mooy Mawlaa Cheikh Mamadou Ba Cheikh Tidiane fii Baay dafay tagg Cheikh Tidiane si ñetti mazahir yi mooy innaqal xatmu mii nuboowa wa maktuumu mii wilaaya wa maliku mii xilaafatu ba pare nag mu ne ko ku tinta nag béef nañ la yow Cheikh Tidiane fii xadratil xaqi si pays yàlla bi laysa siwal muxtaar yadrika kenn xamula ku dul yonent bi laa insun wala malik ujimta fi hadratil aqi laysa siwal muxtaar yadriku laa insun wala malik mu ne Seex Tijaan ku timta nu def nañ la fi hadratil xaq si pays yàlla bi fa lañ la nëbbu nit xamula fa malaaka xamula fa waaye nag lakin tajallayta lil aqwaani jumlatiha lakin tajallayta lil aqwaani jumlatiha anta anta wa minka fulku wal mu ne lakkinta jalayta waaye mu jee ngaa feeñ lil aqwaani ñeel kawlu bi jumlat yaa mboolem seen is anta anta wa minkal fulku wal falak mu ne yow seexu tijaan yow Mawlaana Seex Tijaan si yow la ja si yow la si yow la fulku yi mooy biddéew yi si yow lañ fenkee waaye si yow lañ feeñee waaye weer wi si yow la feeñee ñu ñëw si kutinta foofu kutinta fi hadratil haqqi léegi Seex Tijaan lan nëbbu si Mawlaana Seex Tijaan Seex Tijaan dafa am ñaari mbubb daa am xatmiya ak këtmiyatu léegi këtmiya gi moom la bàyyi wax ne kutinta ndaxte dañ koo nëbbu waaye xatmiya gi nag moom la wax ne la kinta jalayta ndaxte si xatmiya gi ngay gis ne fi la Seex Tijaan doonay tëjjal yetti ilaahi gi fii mooy feeñ ak yàlla gi loolu la bàyyi xool si Seex Tijaan ne ko nëbbeef nañ la si xadara yàlla bi mooy makkaama këtmiya gi lañ nëbbu si xadara yàlla bi makkaama boobu kenn du ko xam lu dul ne xam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du ko xam lu dul da ngaa jeex si Maolana Seexu Tidiane ndaxte makkaam woowu moom mooy kii wax Seex Tidiane mooy kii tagg Maolana Seex Tidiane ba pare nag ne koy lakkinta jalayta lil aqwaani jumlatiha da ngaa mujjee feeñ mooy ndaxte sa xat mi gi moom daa mujjee daj fépp kon kii mooy Maolana Seex Tidiane ba pare Baay Ñas wax ko sànq Baay di ko tagg si naa la Tidiane yi abul abbas yi ayaati qad faaza minha kutubun bil karaamaati bana min ansa nala tijani abul abbas ayati qad faza minha khutub bi karamati li mhm. haysal faqru iz ja'at bi sayyidina خطب القطوب فريدا في المقامات ختم الولاية سلطان الولاية باب للولاية مفتاح الولايات لذاك إمتم حراما من مودته تقادني زفرات كل أوقات باين الشيخ تجاني نالا أمنا تجاني مولانا الشيخ تجاني abul abbas kay bàyyi abbas lu mu am ayaat ay kawteef mu ne kat sa dëgg-dëgg phase texe nañ al aktaabu mboolem kudd yi biir karaamaat texe nañ si karaama Mawlaana Cheikh Tidiane ñu ne bàyyi kooku kan mu ne balaa may ñëw si kan yaay sa ñeel na yaayam ñu yaay sa faxru is jaa at bi ñee la yaay Seex Tijaan puukar bi mu indilee suñu sang bi xutbul xutu bi ki nga xam ne mboolem xutbu yi fi mu jaar moom mooy seen xutbu ñu ne bàyyi kooku kan la bàyyi nag ki ma leen di bëgg a wax nii mooy xatmul wilaaya sultaanul wilaaya baabul lil wilaaya miftaahul wilaayaati bàyyi na Seex Tijaan mooy ki tëj waliw yi mooy dara Seex mooy ki la tëj xatmul wilaaya sultaanul wilaaya mooy sa buur képp kuy waliw yàlla li ko commencé si ni yàlla commencé bind ba fa yàlla di mujjee di bind képp kuy wëliyu Seex Tijaan mooy sa buur miftaax baabul lil wilaaya mooy buntab wilaayatu amul kenn kuy dugg si bahru wilaaya lu dul Seex Tijaan la tijjin nga dugg waaye miftaaxul wilaayaati lii mooy caabi wilaaya yi amul kenn kuy jot si bahru wilaaya lu dul Baay Ñas lu dul Mawlaana Seex Tijaan moom moo la tijjil buntu gi nga yegg si biir bahru wilaaya léegi nag bàyyi ne lan bàyyi ne li zaaka himtu waraaman min mawaddatihi taataaduni zafaaraatun kullal awhaati Baye nag gis nga bi ma gisee maraati wi seeti jaan li zaaka lii moo tax himtu may teew man Baye xanaa man cofeel goo xam ne min ma waddati ni min ma taadu ni mu may gunge min ma waddati zafaaraatu kullal aw xaati mu ne cofeel goo xam ne daf may gunge ay jooy ay yëkkat man Baye may jooy ngir bëgg Mawlaana Seex Tijaan bàyyi bi jiim bàyyi ne ak samtu bi tuuri ak samtu bi tuuri ana sayqa yumilu ni ne ak samtu bi tuuri maa ngi jiim si tuuri Sina doju tiidi Sina mi nga xam ne moom la yonent yàlla Moussa doon wax ak yàlla Moussa di wax ak yàlla si alquran rabbi arini an unzur ilayka qaala lan taraani walakin unzur ila aljabali fa inni staqara maqaanahu fa sawfa taraani mm. fa lamma tajalla rabbahu liljabali ja'alahu daqan fa karra Moussa saayiqan doj boobu nga xam ne alquran nee na tas na te doj ba ba tey mu nga fa doj ba leneen la loo xam ne aarif yi dañ ciy dox léegi nag bàyyi di jiil si doj boobu bàyyi ne ak xasam ci bi tuuy maa ngi jiil si tuuri sii na an na sayqa naka seen bii di Mawlaana Seex Tijaan yuminu ni yenn ma loo xam ne maa suñ ko leenoon maa an daka an wuneenu kalfu baaraati suñ ko yenoon doj wuneenu doj bi day tas ngir lan ngir lañ yen doj ba attanu ko mu mel ni bàyyi dañ ko laaj Cheikh Tidiane lu mu lay yoon xalifatullahi ramsul kawni wul jamiil xalqi wa huwa aslun lil wujudaat bàyyi ne xalifatullahi Cheikh Tidiane nommé na ma may xalifa yàlla ramsul kawni maay junjab kawni bi ruuhu jamiil xalqi maay ruuhu mbooleem bindee fi fa huwa aslun lil wujudaat man maay cosaanu mbooleem amee Cheikh Tidiane nii nag la bàyyi xool bàyyi di tagg Cheikh Tidiane si diggante saxaaba yi di wane maqaama Cheikh Tidiane bi nga xam ne mooy xalqiya bi ak xaqiya bi Cheikh Tidiane dafa am saqiir am xabiir fii soo fi ñëwee di nga gis ne Baye Niass am na ki muy tagg ba yàgg mu monteel degré bi muy wane ne am na keneen ku may tagg si biir kii ku may tagg Baye di tagg Cheikh Tidiane déparé maa ba'da ruslin wa sahbin mislu marqaati maa ba'da ruslin wa sahbin mislu marqaati seyku Tidiane maktumul wilaya Baye ne maa ba'da ruslin ginnaaw yonent yi wa sahbin ak sahaaba yi ñoom ñëpp ginnaaw yonent yi ak saxaaba yi amul kenn ku yéegee ni Mawlaana Seex Tijaan yéegee mu teg si lan qad mu ne bil xaybi si xaybu kat sa dëgg-dëgg faaga lañ texee al aktaabu xutbu yi bi turk yi ñoom ñëpp seen tarixa yi képp ku fi musa am tarixa ki ko jox Mawlaana Seex Tijaan la du yonent bi la ko joxee na te gaa yi joteewuñ si yonentu waaye si Seex Tijaan lañ jotee ndaxte Seex Tijaan mooy waasitatu bu doon diggante jaam ñi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mbooleem xutbu yi bi tuub kii ñu liisal humaam yi faridan nag fil maqaamaati mu ne kii ku wét la si maqaamam xutbu yi moo leen jox seen tarixa yi ku am tarixa nangam Seex Tijaan moo la ko jox tarixa boo munti am Seex Tijaan moo la ko jox ndaxte moom ku wét la si maqaamam bi moom duñ ko doonante ak keneen mu teg si daan laa ma hisalahu mu ne maa faada amul luy bëbbeekoo min zaati rusuli si jëmm yonent yi laa deet ma hissa muy mbas mawlaana Seex Tijaan laa ma hisalahu min zal humaami naka bi la sëriñ fa yuxti axla faydaati mu daal di koy jox axla fayda mooy ñooñ fayda mu ne amul lenn luy bëbbeekoo si jëmm yonent yi muy mbas mawlaana Seex Tijaan kon dëgg-dëgg lii la bàyyi doon wax ne fa sadaqatil ahmadiya bi tanazilil azaliya fil muhammadiya mooy seexu tijaani mooy ki dëggal wàccuwaayu yàlla si biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bàyyi xooloon yonent bi ne ko walawlaa ki si si si si si si abiyaatam bi muy tagge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ne walawlaa ki yabkal xaqu xaqan wa ma durri mu ne yow yonent bi bu doo yow ko jigéen kii dëgg gi dina yàgg si dëggam gi te kenn du ko xam ñu dégg suñu hikma sëriñ mooy Mawlaa Ba mu bu fekkee ne Baye dafa xool yonent bi ne ko walaw laa ki kooku am na kum doon yaqtaa xaqu xaqan dafa ne xaqu bii dina yàgg si dëggam gi léegi xaqu bii yàgg si dëggam gi lan la war a doon mu ne lii bas Baye bu koy joxoon si biir yonent bi ne ko walaw laa ki mooy ki boobu jigéen nag da koo jigéenal te jigéen lëssër la ñeel Mawlaana Seex Tijaan dafa bëgg a wax ne bu dul woon ak yow Seex Tijaan dëgg gii di yonentu dina yàgg si dëggam gii di yàlla te kenn du ko xam ndaxte lu tax moom mooy capté lu jugee koo si yonent yi moo tax mu ne maa faada min zaatu rusuli laa maxi salawu min zal humaami fa yuxti ahla faydaati léegi amul benn ruuxu buy ko si aalamul arwaax di mbas aalamul asbaax ruuxu bu bàyyeekoo si aalamul arwaax day duwal si si aalamul asbaax yi ndaxte foofu lañ koy defaree buñ ko defaree ba pare nag fa yuxti ñu daal di koy sédd ahla faydaati ahla faydaati boobu mooy xadatu kilaafa masala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu demee si xaaru Hiraa di jaamu yàlla ba jibril fekk ko fa jibril bi mu ko fa fekkee da ko ne ikra jàngal yonent bi ne ko man xaw ma jàng doonu ma jàng naka laay jàngee siirakat yi ne yonent bi jibril la koo njàkk poñe ko bàyyi mu ngi koy wax si siira ba bët yi xonk bi jibril bi yonent bi jugee ko si xaaruura dafa daw jëm jëmali xadija bi mu léegee si xadija da ko ne zammilu nii zammilu ni li aarif fi war cee taxaw lan moo war a doon xaaruura lan mooy jibril dafa fekk yonentu ak lan mooy yonentu dafa génnee ak kan mooy xadija ba mu jëm ak lan mooy mbalaan dañ ko sàng nga jàng ne xadija mësëri la huntuwa masiru luɓo wala kafa genne huntuwa masiru ulowu yettula kafa genne masiru wila luɓo wettula fon jem moy si khadijatu lim fa wut mooy jismaniya saawu arum armul arwaaxi jugee ko si xadara yàlla bi fu mu jëmali mooy alamul asbaax yi lu mu fay wut moom mooy jismaniya moo tax bàyyi xool Cheikh Tidiane ne ko ma aani abul abbas yi afnal ma aaniya ñu continuer bayti bi ñëwal sëri ñëwal zakir ñu continué béykat yi li seexi an kulli muslim léegi xoolal fii bàyyi bàyyi mu ne min ba disa masrabun mu ne min ba disa ginnaaw lii masrabun sëriñ bi am na naanuwaay boo xam ne li seexi ñeel sëriñ bi di Mawlaana Seex Tijaan mun xatimun buñ nëbb an kulli muslim mbooleem yonent yi wa am laaki samaawaati ak malaaka yi jege asamaan yi léegi xoolal fu mu njëkkee mooy maa ba rusulin ginnaaw yonent yi wa sax bin ak saxaaba yi mis du marqaati amul ku yégee ni Maulana Cheikh Tidiane léegi lii Cheikh Tidiane sax waxal mooy Cheikh Tidiane bi nga xam ne moom moomu moo judd si diggante Aïssa ak Abdallah kii moom ginnaaw yonent kii moom amul ku yégee ni moom yégee ndaxte mosuñoo gis mu def lu manqué kii sax xiw bi lay waxal waaye nag ñun ba disa masrabun li seyqi ñun kattunun an kulli rusulin xoolal fii an kulli rusulin dañ koo nëbbu mboolem yonent yi fii Seexu Tidiane kabir gi lay waxal ndaxte kooku maqaamam nëbbu nañ ko ku dul yonent bi sallallahu alayhi dañ koy nëbbu boo continué bayti mu ngi wax ne si waa nabiin xat xuliqat kazaaka mu ne nag maqaama bi si waa nabiin ku dul yonent bi rek xamoo ko yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam moo xam maqaama bii di Cheikh di naanee moo tax bàyyi xool Mawlaana Cheikh Tidiane ne ko ma aani abul abbas wa afna ma aani shaw زلمانيا أبا الشوق إلا أن يكون ملازمنا وتنبي أتى سرت ذكرنا ساقيا وقد قصت بحر القيب في بحر سره ولم أكو عن الله ولا متوانيا إلا أن رأيت قطب أحمد أحمدا وقصر وجود الكون سيد بانيا حقيقة سر الكون سالم كوننا باي ناس رضي xool Maulana Cheikh Tidiane ne ma aani Abul Abbas yi afnaal ma aaniya naka maw na maanaa Maulana Cheikh Tidiane na sama maana wa afnaal ma aani sawqihi zalmu aaniya Cheikh Tidiane effacé na far samay maanaa zalmu aaniya kay boromal maana bàyyi na aba sawku illaa an yakuna mulazim wa tanna bin atta surtout saqaraana saaqiya fi ma gën a soxla faqat kustu bahral haybi fii bahri sirrihi walam aqwaanin laa wala mutawaaniya illaa an raaytul qutbu ahmada ahmada wa kasral wujudul kawni sayyada baaniya déglul Baay Ñas déglul allahu akbar moo tax nit ñi dañoo war a jàngale jàngale Baay si Seex Tijaan bàyyi ne xuus naa si géeju Mawlaana Cheikh Tidiane xuus naa waqat xustu baxaral xëy bi naa si géeju xaybu si géej ak xaybu Cheikh Tidiane fii baxri si rii ma xuusaat si géeju mbootam bàyyi ne bu ma fay xuus na xuus ma fakk mandi wala ku doyadi lu dul illaa an raaytu xutbu ahmada ahmada lu dul gis naa xutbu bii di Cheikh Tidiane xutbu bii di ahmad ahmada di ahmada di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naa ba gis ne yéen Mawlaana Cheikh Tidiane mooy yonent bi an raaytu xutbu ahmada ahmada moo tax rabbaani ne muhammadu ruhu jismu wa jismu ahmada walam yabqa illa ahmada wa muhammada mu ne muhammad naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ruuhu jismu sa jëmm ji mooy ruuhu gi ci moom mu ne moom ñeel la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam damay dégg nag gaay naan yonent bi mooy ruuhu yonent bi moo fi jiitu ruuhu ndaxte baay tagg na ko si inna xanmal anbiyaa yi mu ne ko fa huwa siinun xabla raa yi bi nekk nga siru laata raa baay muhammad ba mu ne sin bi sirru la léegi yonent bi nekk na sirru lu jiitu ruuxu te sirru saa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko fi jiitu léegi nag gars yi di wax ne yonent bi mooy ruuxu bàyyi moom mag ba mu ngi lay jàngal la yonent bi nekk na laata ruuxu ndaxte ruuxu matière la si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takkandeer la si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rabbaan yi nag xool diggante Mawlaana Seex Tijaan ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Muhammad ruuxu jismu jismu Ahmada naka Muhammad mooy ruuxu jëmm ji waaye naka yaram bi moom Ahmad la Mawlaana Seex Tijaan la mu ne falam yabqa illa Ahmada wa Muhammada fii dara da fi des du dul yonent bi ak Maulana Cheikh Tidiane bàyyi nag di la digal na na nga julli si ñii salli alal isnayni ramzata kullu isnayni wa sirrihi fil isnayni wa zaaka sirru azal jullil si ñaari ñii mooy Cheikh ak yonent ndaxte julli gi yëpp ñaari ñii la boot mi ñii yëpp mbóot mi yëpp la waaye ñii ñooy sirru azal sirru azal mooy bàyyi moom mii wax wax ji man na bi ma koy jàngale dama ne salli alal isnayni mooy azal ak abad ramzata kulli isnayni mooy azalil azal ak abadil wa sirrihi fil isnayni mooy ezelil ezelil ezel ak abadil abadil abad wa zaaka sirril ezel Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ndaxte moom mooy ëmmat boo si ezel moom nga fay fekk waaye boo ñëwee si ëmmat da fekk ne moom moo dajale abadaat kon ñu ngi sant yalla si Mawlana Cheikh Tidiane bàyyi na ko illaa an raaytu xutbu ahmada ahmada wa kasral wujudul kawni mu ne Cheikh Tidiane mooy tabax ak am ak kawnu bi masalan bàyyi nee na jàmm bi mooy kawnu bi yow miy dund yow yaay kawnu bi léegi dafa am liñ la tabaxee jàmm bi mu ñëwee si jismaaniya lu mu fay wute mooy ñu tabaxee ko mooy ñu defal la yaram te yaram ma sëru Mawlaana Cheikh Tidiane la bu dee yow yaay kawni bi li ñu la tabaxee mooy sa yaram moo tax mu ne Baay Ñas mu ne Cheikh Tidiane wa xasfal wu jurul kawni ba pare nag man mii sax di wax ak yéen sa yada bàyyi na yaa Cheikh Tidiane mooy ki dëgëral sama tabax mu ne xaqiqatu sirri kawni saani mu kawni wa xaatimatu afraadi fardan musaamiya tana wartahu nag fii qadrati qudsiyati mu diiral li ka saati maarifi saaqiya mu ne gis naa Mawlaana Cheikh Tidiane fii pay yàlla bi muy séddale kaasuma arifa yi góor yàlla yëpp Seex Tijaan naanaan diw naanal li ma lay jox maa la koy jox te di nga ko nangu mu ne nag kana wartawu fi hadratu kudsiyati mudiran li kaasati maarifa saaqi ala amri la amri maa ngi jiw man maa ngi jiw sama dund haasa say ko naka sëriñ bi aynul wilaya mooy jëmmi wilaya li tax mooy tax min bahri nubuwati mu ngi bëbbeekoo si géeju nubuwa saafiya di nandale mu teg lan fa sama waral xaq maa law saqartu yurul ki dimaa man aqaalu moaliya mu ne nekk na si loo xam ne mu ngi si ginnaaw xel yi su ma ko tuddoon Cheikh Tidiane sama jege ñaale ñi ñooy jël paaka ren ma ne bàyyi li nga si na si tudd na li mu te dara dara xewul mu ne fasa seyxu sibtul ay nun wa waarisu kaana min qabli maa ya bàyyi lii la bu woon a tudd te xam ne bu tëbee te wax lii day diis si gars yi bàyyi ne nag fasa seyxu sibtul Moustapha kii mooy setu yonent bi ñëpp nag mu nañ Cheikh Tidiane sérif la set aynul Moustapha jëmmi yonent bi la lii nag beneen maqaama la dox na beneen paa ndaxte boo ne Seex Tijaan jëmmi yonent bi la te gars yi rey rey nañ yonent yi suul ko nga waxaat ne kii mooy jëmmi yonent loolu dina compliqué si ko xamul mu ne ko waarisu taaha waarisu maahi kii mooy ku donnu maahi mi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag li gën waar mooy xaana min qabla nekk na laata yonent lii moom est-ce que sax ñëwee ko koo firi kon dëgg-dëgg kii mooy Mawlaana Seex Tijaan jiir yi ñu ngi lay ndokkeel bu baax incha allah wax dëgg na yàlla moom euh, leeral nga Cheikh Tidiane ci noppat ñi xam ne xam nañ Cheikh Tidiane mën ko dégg mm-hmm. dëgg-dëgg man dama dama kontaan lool sax wax dëgg ne yàlla ni nga ubbee si Cheikh Tidiane radiyallahu anhu euh, ñëw nga ci mahania bil abbas yi ñëw nga ci naala Tidiane abul abbas yi nga xamante ne bàyyi dëgg-dëgg damay wax saa su nekk ma ne naara Tidjani waaye dafa leeral ba leeral Cheikh Tidjani. Mhm. ba indi sax ci ay maamam. Mhm. waaye mi ngi ko leeralee euh, ci kay fa yaxloo baxdal firaayil xawaa. Mhm. waaw mi turu maamam yi. foofu la ko gën a leeralee. waaye laa kulli xaalin loolu dinañ ci ñëw après incha allah. balaa ñuy gën a dañu dañuy jox zakir ñu tudd yàlla ba ci kanam incha allah tombé gars yi gën a dalaat incha allah pour ñu mën a ñëwaat ci Zeyda moo gën a xuut ci yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay abiyaatu Mawlana Cheikh صمده سيق وأعصابي وإعدادي وسيفي بين أعدادي وهو روحي وريحاني فمدعو الصيق أورادي وأعصابي وإعدادي وسيفي بين أعدادي وهو روحي وريحاني فمدعو سيق أورادي وأعصابي وإعدادي وسيفي بين عدادي وهو روحي وريحاني فمدعو الشيخ أورادي وأعذابي وإعدادي وسيفي بين أعدادي وهو روحي وريحاني وسيق القتم إعواني فتلفى منه أعضاني وأعلو منه أقرامي فقولي سبيعلاني فمدعو ضيق أورادي وأعذابي وإعدادي وسيفي بين أعدادي وهو روحي ورياني وسيق سره الأعداء لأحبابي وللأعداء سموما ثم للأبدان إمدادا بعساني ومدعو شيخ أورادي وأعذابي وإعدادي وسيفي بين أعدادي وهو روحي وريحاني هلونا منك أطرابا وأبدالا وأنقابا ومنكم جاء أقطابا فيول البحر يرفاني فمدوا سيق أورادي وأعذابي وإعدادي وزيبي بين أعدادي وهو روحي وريحاني فإبراهيمكم هذا مهيب منك قد هذا لناد لكم لا ويرجو شفاقراني حمده سيخ أورادي وأعصابي وإمدادي وضيبي بين أعدادي وهو روحي وريحاني هلا بساكك المسوى هلا مسواكم مخوى فأنت الآية القوسوى لنال بل كذاني ومدر شيخ أورادي وأعزابي وإعدادي وسيفي بين أعضادي وهو روحي وريحاني وإبراهيمكم هذا مهيب منك قد هذا على الهادي لكم لا ويرجو سبق قراني فمده صيخ أورادي وأعصابي وإعدادي وسيفي بين أعدادي وهو روحي وريحاني ولاد القطب أدناني وأفناني وأبقاني ويامي في أسماني وحيراني وهيماني ومده سيخ أورادي وأعصابي وإعدادي وسيفي بين أعضادي وهو روحي وريحاني فحيني عين محبوبي وما كل ومشروبي مداد القطب مصحوب بأسفار وأوطان ومده زيغ أورادي وأعزابي وإعدادي وسيفي بين أعضادي وهو روحي وريحاني وكابت فيه أسواقا وحاصر فيه وساقا وشوت فيه أوراقا أياما مثل غيلاني ومده سيق أورادي وأعذابي وإعدادي وسيفي بين أعضادي وهو روحي ورياني بدم فوق شعبي وجري فوق يعبوبي لنحو القتم محبوب ومحسال لأدراني فمدوا سيق أورادي وأعزابي وإعدادي وصيفي بين أعضابي وهو روحي وريحان لمولانا ومرجانا ومخوانا ومرجانا أبي الأباس مسكانا مميد كل تجاه أمده السيق أورادي وأعصابي وإعدادي وصيبي بين أعضادي وهو روحي وريحان على الأقطاب رجلاه فيال القتل بشراه وبشرى من بسلفاه ومن في شوقه هاني ومده سيق أورادي وأعصابي وإعدادي وسيفي بين أعضادي وهو روحي وصحبه وريحاني له ورد من الهادي سماء كل أورادي لأسياق وأفرادي فهذا الورد أقناني فمدعو سيق أورادي وأعذابي وإعدادي وسيفي بين أنباري وهو روحي وريحاني وخير سابق الطال عليه شيخ الدولة ونافي ساق ما لا إلى البل وخسراني فمضه صيغ أورادي وأعصابي وإعدادي وسيفي بين أعضادي وهو روحي وريحاني له صخب كأكمار سهو فتح وأسرار وتمكين وأنوار فكل أين أحياني حمد سيق أعرادي وأعصابي وإعدادي وصيبه بين أعضاني وهو روحي وريحاني قهاري زبق أقراز مهادم راوي القاتل ونجل المذنب سلهالي فلالاني ولا واني حمد سيخ أرادي وأعصابي وإعدادي وسيفي بين أعدادي وهو روحي وريحاني ومحمود هما من القرم واصل جيت فيها الربر رابر هامه الآصر فكل أهل عرفاني علي أمدو سيخ أورادي وأعظبي وإبادي وسيفي بين أعدادي وهو روحي وريحاني أمامي تجوى للهمام عين عين الله تفهم رمز أهل الله فلا تولى بنقراني فمده سيخ أورادي وأعذابي وإعدادي وسيفي بين أعبادي وهو روحي وريحاني فسيقي برزق المكتم وسيقي قاتم المعلوم وسيقي عينم المعصوم بأمداد لشعباني فمدوا سيقي أورادي وأعصابي وإهدادي وسيفي بين أعبابي وهو روحي غرياني وتيل المرأة أو أخبر فدرك وصفي لا عاد ولا ميسار أسر البر ولو أفنيت أزماني فمدعو زيغ أورادي وأعذابي وإغدادي وسيفي بين أعدادي وهو راهي وريهاني ما شاء الله الحمد لله سيكرسي ما شاء الله نحن لول waaw Zeyda Mama Khady eh, ñu agsiwaat si yow rek incha allah nga naanalaat jaamu yàlla yi eh, bëgg nañu nga waxal ñu bàyyi kan la doon waxal wala ñan la doon waxal ak lu mu doon jublu ci wax ji ba muy wax naan haya naasu hallu hasla waqfu muhammadan wa ilaa taraw ni dëhëra jadda bara yi dëgg-dëgg ndaxte bayit bu am solo la foog nit ñi xam dëgg-dëgg ci ban yenent lañu war a topp mhm. ban yenent lañu war a dellu alhamdulilah moo tax Baay radiyallahu anhu yemul foofu di tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallama moo tax Baay mu ngi koy tagg naan ko a iwaanul kishra hal dahaka wan zara mhm. buruzu nabi inna kisra taqahqara mhm. كسرى أنو سروان جاء محمد وهل قطها أنهار أم هل تفجر من الكسران أنو سروان جاء محمد بآياته الكبرى وقصرك بسار إيوان كسرى ألدهاك وأنصرا بروس نبينا إن كسرى تقهقرا كسرى أنه سروانا جاه محمد بآيات الكبرى وقصرك أبصرا كسرى أنه سروانا جاء محمد وأنقطها أنهار الله أم هل تفا جرى الكسرى أنه سروان جاها محمد وقال أتاك مبسان مكا برا الكسرى أنه سروان جاء محمد يريد سكرا منسرا ومباسرا وقد سجد المقبود لله ناطقنا وقد أنبع القرآن ما كان مطمرا كسرى أن سروانا مطبع من كسرى أن سروانا أيو تاهم كسرى مي هل دهاك ندخ يمولا وانزرا واو ندخ وارو ندخ جمالولا buruusu nabi feeñ ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy juddoom bi mu ne inna kisra naka kisra bi la tabaxoon te qaxqaraa dellu na ginnaaw foofu bàyyi tabax bi lay laaj ndax jommi woo ndax waaru woo ndax sa borom bi la tabax ndax moom dellu na ginnaaw moom kisra anu sarwaana ndax bi yonent bi juddoon taaxam kisra mi dafa xotteeku woon xar fukki xar-xar ak ñaar ñii naan fukki xar-xar ak benn moo tax mu ne kisra anu sarwaana eyow kisra anu jaa dikk na muhammadun muhammad bi ayaatihil xubra ànd ak ay kawteef yu ngand wa xasruka naka sa taax abu saa gis nañu juddu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax nañu xar moo tax baa ngi naa hawal mustafa al muxtaar xaalata mudmari wa kulli wa juzi fa huwa sirri wa mazhari ida daa daw ul badri miltu li zikrihi wa azkuruhu fi kulli maran wa manzari waaye mu ne hawal mustafa sopp mustafa muxtaaran tekki ñi tànn ki xaalata mut mari jaxase na sama xol bi bàyyi mu ne bëgg ji ma bëgg yonante bi moo ngi jaxase sama xol bi bàyyi mu ne wa kulli sama lépp yonante bi la bàyyi mu ne wa juz sama xaaj yonante bi la bàyyi mu ne fa huwa moom yonante bi nag sirri mooy sama sirru wa mazhari te mooy sama péngo bàyyi mu ne isa daa saabu leere daw ul badri leeraayu weer bi miltu dama jéngu man se ibrahim li zikrihi dem si tul yonante bi sallallahu alayhi wa bàyyi mu ne waa waskuruhu daf may fàttalikuloo fi kulli mar an si bépp gisuwaay mhm. wa manzari ak si bépp xooluwaay bàyyi mu ne su xool daf may fàttalikuloo yonent bi bàyyi mu ne su may gis sa daf may fàttalikuloo yonent bi mhm. bàyyi mu ne isxaala su neexee mhm. mazaaqu lu may mas fa huwa moom umri sama dund mhm. mazaq li may mos mooy li neex si man daf may fàttalikuloo yonent bi bàyyi mu ne wa mushkiri li may naa mu tëmamaani sax mhm. daf may fàttalikuloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. moo tax déglu Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bàyyi mu ne ixtalafat alsuluhum wal xaqadu mujtahidun xaqan bi rabbi hamdi bàyyi mu ne ixtalafat wute na ak sunuhum seen langi wal xaqadu waaye seen paspas mu ne mujtahidu mu ne benn paspas kese lañ am xaqan bi rabbi hamdi ñeel na yàlla bii di borom jaami ñu ne ko baay li man baay baay mu ne awaluhum hawsa wa ahlu zarma kazaka dahumba al ayru fihi ama wa jaani yoroba تزاك موسي اختلفت ألسنهم والأقد متيد حقا لرب العمد اختلفت ألسنهم والأقد متيد حقا لرب العمد أو لهم أوصى وأغلو زرما كذاك دغم الخير في إما وجاءني يروب كذاك موسي ووانغرا وجاءني من فرسي كذاك كت كل وفرفروا أتوا كذاك ونجا ومن الفيد رواو باين وقوم قرما وبسانغا وفلا غاو ولا أقصى عني ولا قرون سجاو كساسا ولبي برقو تقاتي فأصل نصبي باسار غادر فتي قبائلي زقاهم القتم تجاني قائلي مطع الكبير يرمي من بعيد يخني لي مقام مكتم فرج درت إلى تمل وقصد النصر دين المعيمن فيهني قدري جئت وما أمكنني نسول من كثيرة الناس ولا ألول فصرت فورا قيفة ليندي أن كل الخلق صار يندي هنا أراني حياء وهجل العبد إبراهيم ما له يجل لقنت آلافا ولن تغدا feeñee kalimatu tawhidi wala muadafat moo tax baay mu ne awaluhum xawsa mhm. wa ahlu zarba kazaka dahumba al ayru fihi ama wa jaani yoruba kazaka muusi wa wangara wa jaani man fuusi kazaka katkuli wa fawfaraw ataw kazaka wujja wa min alfaydi rawa wa qawmu hurma wa busanga wa fula daawu azu anni wila rumsi jaa'u wa busasa wa lubbi barhuda haadi fa azalu nasabi baasara aadara fatil qabaili saqaahumul xatmu tijaani qailan bàyyi mu ne yi la xeet mawlana Cheikh Tijaani nannal na leen mm-hmm. bàyyi mu ne almatfaru li kabir tëng bu mag bi yar mi mi ngi doon mi bàyyi fu sori bàyyi mu ne lu mu jublu si maqaam boobu mooy maqaamahul muqaddamul farid bàyyi mu ne tirtu ila tamal wa qasti nasri diinal muhaymin fa yuli qadri jitu wa maam kas moo maam karani ndax lan min kasrati naas wala xaluulu fa sirtu fawran ayfatan li yani ka anna kulle arqisaaru indi huna harani wal hayaaw wal hajal ah. maala abdul ibrahima maaluhu yujal bàyyi mu ne tirtu avion ba naaw na ila tamal jëm tamal bàyyi mu ne wa qasdi nasri diinal muhammil hmm. bàyyi mu ne sama jubluwaay mooy ma dimbale diine yàlla bi hmm. bàyyi mu ne fa yooli qadri sama yéene sama pas mu ne jiitu ñoom nañoo ma am calendrier waaye mënuñoo wàcc ndax lan min a naasi ndax nit ñu bëri hmm. wala xalu ak rus bàyyi mu ne fa surtout faran il fatal li yalli mu ne avion ma naawal ñu jëm te yalli ka an na kullu arqi saaru indi mu ne dafa mel ni mbooleem mbindeefu yàlla yi rek dañoo taxaw sa indi ni ñu fa xaar bàyyi mu ne hunaa foofu nag haraami gar na ma fa hayaawu kesta wal hajal ak gàcce bàyyi mu ne maana abdul ibrahima maaluhu yu jal ana lan mooy jaam bi di ibrahim mm, moom kan la ak moom lu mu am bañ koy màggale nii xaqa qadrihi miqdaari azim asalaamu aleykum allah dëgg dëgg kon eh, leeral nga nag ne nit ñi yeneen bi rek la ñu war a topp moom la war a fuglu saa su nekk te dëgg-dëgg bàyyi loolu la nandal ay taalibeem mm. da ngay gis na ne saa su ne dama koy wax taalibe bàyyi dafay dafa war a sonnee mbëggeelam ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëgg dëgg euh, sëriñ bi ñi ngi ñëw ci Cheikh Moustapha mhm. euh, man moom laaj bi ma lay laaj mooy bi bàyyi di wax ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mhm. naan ko dëgg dëgg Cheikh Tidiane mi huma mi taaju ahlillah huma mi aynu aynillah mhm. sànq leeral nga ñaari maqaama mais dafa dafa mel ni danga doon wax ak yow ñoñ ñi nga xamante ne dëgg-dëgg dañuy bañ ku leen laal ci Cheikh Tidiane yi mhm. bi maanaam bu ma bëggee wax mooy ñooñ sariyal mhm. wax nga ak ñoom mhm. mais ñooñ xaqiqa tamit gën nañoo dégg mais ñooñ sariya aussi foog ñu xam ne ne dëgg-dëgg wax jooju bàyyi wax parce que bi bàyyi di wax wax jooju bëri na ñi nga xamante ne ñi ngi fi woon di ay sëriñ nekkoon ci Sénégal ba ci sax ñi jàppoon tarixa tijaan nekk comme ñun mais wax jooju bëri na tey koo toog ak moom te bokkul ci pays Maolana Cheikh Ibrahim nga wax ak moom mu ne la kon dëgg-dëgg bëgg nañ nga leeralal ñu dëgg-dëgg bàyyi ndax boppam la doon junj foofu wala Cheikh Tidiane dëgg-dëgg maqaamam bi la doon wax. Mhm. macha allah euh, sëriñ bi ñu ngi lay ndokkel beneen yoon ci laaj bi ñu laaj umaami aynu aynil. la umaami taaju ahlillah umaami aynu aynil la dafa ne umaam sama imaam bi taaju ahlillah mooy sàppop góor yàlla moo kawe góor yàlla yi sama imaam bi aynu aynillah mooy jëmm ak jëmmi te ku des Seex Tijaan yàlla xéefér nga Seex Tijaan moom du yàlla léegi bàyyi lan joxoñ fii naan umaam taaju ahlillah ak umaam aynu aynin la mu teg si lan te foofu xam ramzu ahlil la te foofu xam déggal di seen ñuy est ñëw nañ ko mbiri xam nga bàyyi da koo laal ci kitaabul <laughs> waaw waaw foofu foofu laa bëggoon a daani ji léegi ba pare bàyyi bi mu la waxee lii ba pare mhm. bugul nga weddi mu ne te foofu xam déggal mhm. ramzu ahlillah junjak ñooñ yàlla mhm. mooy danga nga dégg junjak ñooñ yàlla léegi imaam yi aynu aynillah li limaam yi taaju la lii ñëpp nangu nañ ne képp ku weddiwut nangu naa ne Seex Tijaan képp kuy góor yàlla moo la féetee kaw waaye nag umaam yi ay nu ay nillah nii aarifee ko moom lii beneen maqaama la lu tax mooy lim sa utiliser moo fa moo tax te foofu xam rëm si ahlillah lii foog nga dégg junjëg ñooy yàlla te bàyyi moo ñu digaloon aleykum bi quatre mille asraar yi moo tax yenn yi duñ ko ñëmee firi si télé waaye ñu ngi sant yàlla ba tey bàyyi continuer na si Seex Tijaan yaa ngi koy bi wasfillaahu baydallah xam nga fii bàyyi nee na Seex Tijaan kitaamullahi rijalun la la ilaha illallah bi wasillahu baidallahi la ilaha illallah imami taaju ahlillah la ilaha illallah wasaaqi sirri ahlillahi la ilaha wallahi azim Baye Niass ndeysaan wallahi azim jërëjëf رمز الكون عين الله لا إله إلا الله nga Baye dafa xool Cheikh Tidiane ko xitaamul laa rijaalu laa bi wasfil laahi hubaydal laa mu ne Cheikh Tidiane xitaamul laa mooy moo tëj yàlla bi mu ko tëjee ba pare lan la rijaalu laa góor yàlla la bi mu ko bi mu nekkee góor yàlla ba pare lan la bi wasfil la melob yàlla la mm-hmm. bi mu nekkee melob yàlla ba pare lu mu doon hubaydallah mm-hmm. as njaam ak yàlla la léegi lii ku amul maarifa mm-hmm. da ngay weddi bàyyi ku amul xam-xam ku xuut si yàlla mun ngaa weddi bàyyi te mu fekk bàyyi lu muy wax si xam-xam la ko teg lu muy wax si xam-xam la te yàlla moom yaa awalu bi xëyri bidaaya wa yaa axiru bi xëyri nihaaya yàlla fa ay na namaatu wàllu fa sama wajhullah foo munti jublu yàllaa nga fa te yàlla amul tàmbali amul njeexantal luñ ko mun a tëjee mu ne Cheikh Tidiane moo ko kaste lii mu ngi wax nësëb ak yàlla fi yàlla def nësëb lii lay jàngale nësëb ak yàlla si jaam bi lay jàngale maraatibu yàlla yëpp dangay fekk Cheikh Tidiane mooy ko ko kaste ndaxte masalan yow mii maraatib yi yàlla def si nësëb si jaam bi yëpp da ngay fekk jismaaniya moo koy capté te jismaaniya mësru Mawlaana Seex Tijaan léegi ñu dégg suñu sëriñ bi mu koy firi si hikma mu ne xitaamul lii dafay taxawee uluhiya rijaalul la dafay taxawee xaqiqatu muhammadiya bi wasfillah dafay taxawee xaqiqatu ahmadiya hubaydallah dafay taxawee xaqiqatul xilaafatu mooy xaqiqatu ibrahimiya si hikmat sunu sëriñ lu si génnee mooy xitaamul la da koy jox pir yàlla bi rijaalu laa nga jox ko xaqatu muhammadiya bi wasli laa nga jox ko Cheikh Tidiane moom bu bay dal laa nga jox ko Cheikh Ibrahim masalan tey jaam bi yëgg nga ci yàlla lii sax est-ce que ñëwee nañ cee dugg waaye ànd ak lépp bàyyi ñes jàngale gi muy jàngale Mawlaana Cheikh Tidiane ku xuusub si yàlla mënoo koo wax mënoo koo mënoo ko dégg sànq bi gars yi di wax bi Zeyda di waxtaan maa nga naan sëriñ bi xellantaw mu may ma tuuti ma dugg si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma jàngale tuuti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa ne nag Zeyda jàngale na ko lu bëri mooy mooy Baay Ñas radiyallaahu anhu dafa tagg yonent bi gënale ko si mboolem yonent yi te yonent bee gën mboolem yonent yi ndaxte yonent yëpp li am ñu ko amee si yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam Baay di wax xarbaaxu yonent yi lu ko mel ni yonent yàlla Ibrahim yonent yàlla Moussa yonent yàlla Souleymane ñii ñëpp Baay di wax seen xarbaax ba pare na ñii ñëpp seen xarbaax du dara si yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam ndaxte yonent bi moo leen may seen xarbaax yi ñu am. lu tax mooy inna xatmal anbiyaa yi faaka arsa lanbiyaa yi bàyyi ñes radiyallaahu anhu nee na yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam moo ki tëj mboolem yonent yi waaye yonent yëpp ay yonentab bi lañ bàyyi dafay jàngale ngëneel yi yàlla joxoon yonent yàlla ibrahim ba muy tëj xërëm yi ba yàlla mayoon ko mu mun a génn bi ko ko yàlla bi mu juddoo si ay diggante ñaari waajuram yàlla may ko luy nit di màgg benn at yontu yàlla Ibrahim benn weer la koy màgg ba bés ba xunt bi ko waajuróom yi dugaloon ñuy leen xista bi bi mu génnee li mu njëkk a dajeel mooy bi mu génnee si gi rek dafa njëkk a dajeeg biddéew alquran di ñu ko nettali falamma janna alayhi leylu ra'a qawqaban qaala haza rabbi falamma afala qaala laa uhibbul aafilin falamma ra'a samsa bazihan xamaru bazihan qaala haza la in lam yahdini rabbi la aqunana min al qawmin daalin fa lammaa ra'a samsa baazixatan qaala haazaa rabbi haazaa akbaru qaala yaa qawmi inni bari'un mimmaa tusriqin qaala inni wajaxtu wajhi lillaziina fatara samaawaati wal ardi haniifan amaa wamaa ana minal musriqin xam nga yonent yàlla Ibrahima bi mu génnee dafa jëkk a génn si guddi gis bi déew bàyyi muy nettali lii bàyyi mu ngi koy tafsir si riyaaru tafsiram bàyyi ne am na dégg naa nag ñoo xam ne dañ ne Ibrahima dafa ne biddéew bi mooy yàlla weer bi mooy yàlla jant bi mooy yàlla te Ibrahima dafa ne yaa xaw qawmi inni bari'un mimmaa tushrikiin man dañ naa si woy bokkaale te ku def biddéew bi yàlla yow yaa ngi bokkaale ndax te yàlla ku def weer bi yàlla yaa ngi bokkaale ndax weer wi du yàlla ku def jant bi yàlla yaa ngi bokkaale ndax jant bi du yàlla bàyyi bu muy leeral lii ne arab buy wax lu sori du ko wax haza buy wax lu sori du ko wa haasa haasa lu jege la mm. ndaxte Ibrahim du jaaxil mm. xam na yàlla lu jege la te bi dafa sori biddéew mm. balaa nga ko xool foog nga téye weer balaa nga ko xool foog nga téye yàlla est-ce ko soo koy xool aajowoon na téye du jaaxil li muy wax ne haasa rabbi bàyyi mu ne lii du biddéew bi lii boroomi xaqiiqiya bi la si jublu lim jublu du biddéew bi ndaxte haasa rabbi bu fekkoon biddéew bi lay wax dafa ne al najmu rabbi wala wal qamaru rabbi wala wa samsu rabbi biddéew bi mooy sama borom wala jant bi mooy sama borom wala weer bi mooy sama borom waaye haza la wax haza rek la wax indiwul biddéew bi dafa ne haza léegi haza boobu Baye dafay yéggale si taalibe ñi ñu xam haza bi Ibrahim doon jublu lan la léegi Ibrahim boobu moo jamonoonte woon ak Namrus ba mu taal safara dugal ko si safara sa alquran nettali ñu qul yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahim Ibrahim moo tojoon xërëm si jamono moom ak Namrus bi gaa yi ñëwee am feet boo xamante ne dañ doon dem foofu ngir ñaan yàlla pour nawet bi buy ñëw ngir seen ji bi liñ ji naat bi fa demee ñu ñëw si Ibrahima ne ko nañ dem su sunu feet bi Ibrahima ne na ana sax yi mënu man tey damaa feebar boobu Baay Ñas mu ngi nettali bu fekkee ni ibrahim feebarut mu ne dafa feebar dañuy wax ne yonentu la wax na lu amut bàyyi ne ahankay li mu wax am na lu tax mooy dafa feebar mu ngi gis nit ñi di jaamu leneen lu dul yàlla li yoo ko feebarloo enrif lii rek moo war a feebarloo mu gis nit si leneen lu yàlla moo tax bàyyi ku layal yonentu yi la Baay Ñas kenn mënul jaar si moom lay jam ndaxte moom dafa layal yonent bi lépp moom dafa sukkandiku si alquran ak sunna léegi nag Ibrahim bi gaa yi demee ñëwee si moom ne ko nañ dem ànd Ibrahim ne leen tey damaa feebar mu bàyyi ba gaa yi dem mu ñëw daaneel xërëm yi fa nekkoon yëpp xërëm yi ndaw yi mu jël semaine bi mu ko doon daaneel wekk ko xërëm bu mag bi gaa yi daw ñëw bi ñëwee dugg si seen bu ñu demee ñaan ba pare dañuy ñëw seen xërëm yi di gën a ñaan yàlla ngir seen nawet bi naat gaa yi bu ñu see fekk xërëm yi ndaw yëpp ñu daaneel gaa ne ñan ñoo def lii ñan ñoo daaneel sunu xërëm yi ana kan moo def lu ñaaw lii léegi Ibrahim am benn waa ji fa nekk ne am na benn ndaw bu ñuy tuddee Ibrahim ku bañ sunu xërëm yi la gaa yi nekk moom la moom la gaa yi dem wooyu ju ko gaa yi ñëw ñu ne yonent yàlla Ibrahim ndax yow yaa toj sunu xërëm yi yonent yàlla Ibrahim ne yéen yéen na ma yab yéen yéen a ngi gis seen yàlla bu mag bi jël sémmiñ bi wéeg ko balaa loolu Ibrahim dafa ñëw dugg si xërëm yi ne asalaamaaleykum kenn wuyuwul mu ne leen lekk ngi xanaa du ngeen lekk kenn wuyuwul naan ngi xanaa du ngeen naan kenn wuyuwul Ibrahima mer daal di jël xërëm yi ndaw yëpp daaneel ko bàyyi bu mag bi jël sàmmiñ bi sémmiñ bi lonkal ko bu mag bi léegi gars yi buñ tugisee gis yu loolu wooyu Ibrahima Ibrahima ne neen xanaa yéen du ngeen laaj xërëm bu mag bii est-ce que du daa mere xërëm yu ndaw yi buggu ngeen bokkaale ko ak xërëm yu ndaw yi moo tax mu daane leen boobu mu leen di jàngal taw tawhid wéetal yàlla mu leen di jàngal kennal yàlla léegi nag gars yi ne yooyu yaa ñu yàpp kii nu lay waxee kii ku mun ta wax nan lay daane lay si des Ibrahim ne leen yéen ku munta wax ku munta lekk naka ngeen di ñëwee si moom di ko di seen i soxla léegi nag kii moo daaneeloon xërëm yi bàyyi di wax ne Ibrahim mi amoon lii yonent bi am na lu ko ëpp wa kasara asnaamaka misli halilihi wa amsat bi taaha naaru bardan musarrafa wa ahyaaka insa bada mawtaali qawmihi wa bil massi naalal askamuuna kasaasifa wa muusa miyaahu min ruhaa min tafajjarat lahu insaqal badru istaha isdahaahum ilal wafa bàyyi na wa qad falaqal bahral karimu wa innahu law in saqal badru isdahaum ilal wafa bàyyi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toj na ay xërëm comme ko Ibrahim tëjee yonent yàlla Ibrahim dugal si safara yàlla ne yaa naaru kuni bardan wa salaaman ala Ibrahim yow safara si seddal ànd ak jàmm si Ibrahim bàyyi mu ne yonent bi moom dafa laal safara safara si sedd moom moom daa laal safara si safara si sedd kon li mu am moo ëpp lu yonent yàlla Ibrahim am mu ne wa ah yaaka insa ba damawtaali xawmi yi wa bil massi naalal askamuuna kaza sifa mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Insa yonent bi dundalee na comme ni Insa dundalee ba pare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fajee na comme ni Insa ni raw ni Insa doon fajee mooy yonent yàlla Insa yàlla da koo mayoon képp ku feebar si ñoñam wala ku dee si ñoñam su la raayee nga jóg bàyyi na yonent bi dundalee na noonu ku dee waaye gis na ku feebar mu raay ko kooku wér bés dafa am saxaaba yi ñu demoon xare am saxaaba boo xam ne dañoo dañoo lukki botam mu ñëw si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne ko ah, si bëtu aljana wala ma defaral defaralal sa bët bi ñaar yi ban nga ci bëgg waa ji na ko ah yonent bi man man de bëgg naa bëtab aljana waaye damaa bàyyi set kër ga mhm. te bëggumaa dem si moom mukk ma am lenn lu des si man yonent bi raay bët bi bët bi dellu mhm. bàyyi ne wa ax yaaka insa bada maw taali xaw mi mhm. wabil masti naalal askamuun a kasaasi fa mu naka yonentu yàlla Moussa mi nga xam ne moom moo jëloon doj bi xeerat moom moo jëloon yat bi door ko si xeer wi xeej wi génnee fukki bën bën ak ñaar fukki naan waay ak ñaar ngir gu ne di si naan mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom si ay loxoom la woyalee ndox saxaaba yi di ci naan moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag naka ki nga xam ne moom mooy Souleymane wa Souleymanu malkun saaral jinna baynama hadis taxdamal haadi malaayika man xafaat mu ne naka yonent yàlla Souleymane mi nga xam ne yàlla da koo tàggatoonan jinne yi jinne yi di ko liggéeyal mu ne waa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadis taxdamal haadi malaayika man xafaat mu ne yonent bi moom malaaka yi ñoo koy liggéeyal xam nga malaaka gën a foor jinne mu ne Suleymaan moom jinne ko liggéey waaye yonent bi malaaka yi ñoo ko doon liggéeyal bàyyi na ko sayyidul rusuli mustafaun safiun yow ma azza tasfi kulla rusuli mu ne kii mooy sang mboolem yonent yi mooy seen sang mooy seen tànneef moo leen di ram ñoom ñëpp bis bi nga xam ne ramm lu jafe lay doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ramm mboolem yonent yi kon dëgg-dëgg Baay Ñas radiyallahu anhu dafa jàngale Mawlaana Seexu Tijaan jàngale yonent bi waaye jàngale boppam si biir boppam kon ñu ngi sant yàlla bu baax jiili ñu ngi lay ndokkeel bu baax di la ñaanal yàlla yal na yàlla gën a dimbali si barki baay amin yaa rabbi amin macha allah sëriñ bi kon xam naa ne émission bi agsi na ci ci fin bi mhm. dañuy dañuy bàyyi Zeyda mu tàggatoo laataa ñuy agsi ci yeneen gars yi allah alhamdulilahi moo tax bay radiallahu anhu mu ngi taggaat yonente bi sallallahu alayhi wa naan ko diyaa u min alhaadi bariyati almustafa hiyaarihim is anna rabbi qad istafa habaa'u wa ahtaahu maqaama ka annahu muraadun muridin kaa'inaati walmustafa tawajjahtu min ahli bi kawlahi saa'iran ilayhi wa lii xubbun rusuhun wa lii ixtifa bi yoofin bi las balma bil arb taa'iran bi shawqi qad dahaani mudlifa bàyyi mu ne diyaa u lii ak leer la min tukkee ko haadi kii gindi bariya ci mindeefi wal Moustapha te mooy ki ñi tànn yaarihim tànn na ko is anna rabbi naka man sama boro man Cheikh Ibrahim xadistapha tànn na ko bàyyi mu ne xabaa u may na ko wa axtaahu te mu jox ko lu mu ko jox maqaama maqaama boo xamante ne ka annahu mu mel ni muraadun muridin kainaati na mu teefu kawnu bi bàyyi mu ne tawajjaxtu maa ngi jublu man Cheikh Ibrahim min tukkee ko ahli bàyyi sama ñooñ bi kaw laxi ca kaw la bàyyi mu ne saa iran nag may doo ilahi jëm si kan si yonente bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi mu ne bi shawqi ànd ak cofeel ànd ak mbëggeel xadd dahaani jombal na ma ñu ne ko Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ana lan moo la jombal bàyyi mu ne mbëggeel ji ma am si yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak cofeel ji ma yëg si yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo man baay bàyyi mu ne ma mut ni fàtte moo ma sonal xaqa qadrihi miqdaani azim wasalaamu aleykum wa rahmatullah macha allah macha allah Euh, sëriñ bi xam naa dañuy bàyyi ñoom ñu mos tuuti sikar mhm. bu ko defee ñu tàggatoo jotaay bi ndax mi ngi mi ngi gën a guddi incha allah ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ala la ilaha illallah ala la ilaha illallah ألوف الخلق معلوف سبيل الله برهام ألوف الخلق معلوف سبيل الله برهام لا أنت الإذن من كل مغوف القوس برهام ألا لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله سكور قالش الأغمال والأقوال برهام سكور قالش الأغمال والأقوال برهام هليل الجلب لنا في زلة خليص الخلق برامك ولد لا إله إلا الله لا إله إلا الله خسوق من سجاياك قياس الخلق برهام خسوق من سجاياك قياس الخلق برهام إله الخلق أعطاك زمام الكون برامك ولد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لقد أوتيك كن فيكون فيكون فدين الله برهام لقد أوتيك كن فيكون فدين الله برهام حبيب الأق بواب ولوج الكل برهام لا إله إلا الله لا إله واغلم بين حبيب الأق بواب ولوج الكل برهام لا إله إلا الله لا إله إلا الله عن انت كل جدواك سوى ساليك برهام عن انت كل جدواك يا ساليك برهام جميل جابر الكسر لمن وافاك برهام كونك لا اله الا له لا إله إلا الله جميل جابر الكسر لمن وافاك برام قولك لا إله إلا الله لا إله إلا الله إمام الأولياء كل يا سلوات برهما إمام الأولياء كل يا سلوات برهما بروس الأق والواقي والإرفان برام قولك لا إله إلا الله لا إله إلا الله برآم بروس الحق والتحقيق والإرفان برام قولا لا إله إلا الله لا إله إلا الله رميت القصر لديني لآل القصر برام رميت القصر لديني لآل القصر برام حقست اللب من لوبي لآل اللب برام قولك لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا منقى القلب في أهوس سوى الله برهام يا منقى القلب في أهوس سوى الله برهام يعيم في جبروت كذا الملكوت برهام كونا لا إله إلا لا لا إله باي برهام يعيم في جبروت كذا الملكوت برهام كونا لا إله إلا لا لا إله إلا لا ما أتى الكون بناصر صوتي تسر الله برهما مات الكون بنا صوت سر الله برهما أسر سر لسر لأهل سر برهما كولك لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إله إلا لا لا إلا لا لا لا إلا لا لا لا إلا لا لا لا إلا لا اوكي ما شاء الله الحمد لله beneen yoon Cheikh Moustapha bëggoon nañ ñu nga duggal ñu tuuti ci daanaka wax ji nga xam ne def na polémique tuuti ci Sénégal daanaka bëri na ñoo xamante ne sax ñi ngi ci jéem ngir jamee ci faydu te faydu kenn mënu ko jam euh, di wax naan yàlla dafa am sant ba pare nag utal ko sant ne njaay la sant bëggoon nañ nga gënal ñu leeral dëgg-dëgg parce que bàyyi dafa jàngale bàyyi dafa wax mu ne bi jaahiri charhin hmm. wa nuuril mubin u rabbi saalikiina bila shakkin wala rayn kon dëgg-dëgg bu dee bàyyi ci loolu la ñu yar kon dëgg-dëgg euh, loolu warul nekk ñun loo xamante ne dafa war a jugeekoo ci ñun di génn bëgg nañ nga leeral ci jàmm aywa ñu ngi ndokkeel Seydi Djily si lim ñu laaj xëy na bu ñu si laajutoon duñu wax waaye ndem si média lañ ne ñu ñu askanoo si Cheikh Ibrahim di wax rek si liñ nit ñi di olof di wax ne jamono ji mboo lëmba moo lëmba réew mi li nga xam ne jamono jii mooy temu borom xam-xam yi boroom xam-xam bu jóg dina ci wax dañ ne woon ñun duñ ci àddu ndaxte ñun dañoo tàmmoo liggéeyal Cheikh Ibrahim dañoo tàmm woon nit ñi jubale leen si dëgg dañoo tàmm woon nit ñi li baay li tax a jóg bàyyi bàyyi ñes radiyallahu anhu ñooñ sariyatu kenn mënu koo jam si sariya bàyyi ak baay rek kenn ñu mu koo jam fi ñu koy jamee kay su njabootam yu mel ni man lañuy jaar jam Cheikh Ibrahim baay nee na man ñaari sëriñ laa am sama sëriñ bu njëkk bi mooy alquran ak sunna yàlla bindul ku ma ko gën a dégg mm-hmm. yàlla bindul ku gën a jox cër yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla bindul ku ma gën a jox cër alquran ak sunna mm-hmm. moo tax kenn mënu ko cee jam mm-hmm. sama sëriñu baatin bi sama sëriñu zahir yi mooy alquran ak sunna sama sëriñu baatin bi mooy Mawlana Seexu Tijaan léegi tey ñun bàyyi ñes lim indi ak dayo bi mu toll ak ni mu ak ni mu ñu war jàngal nit ñi lu bàyyi indi ñun ñuy jàngal nit ñi suñu bakkan tey mbokk yi Seydi Jili mu ma koy laaj nit ñi nga xam ne ñu ngi def yàlla ñu ngi naan yàlla nit la mhm. ba pare utal ko sant yi mhm. erreur gën a ko rëy tey bu dee yow da ngay utal yàlla sant santale ko nàngam mhm. masalan moo xam nga santale ko Seck moo xam nga santale ko Njaay moo xam nga santale ko Balde moo xam nga santale ko Ba léegi yow boo santalee yàlla sa sant keneen ni santale yàlla si sant ndaw sant yu bëri te yàlla kenn la lii xam-xam dajji na ko man nag lii duma si xuus lu bëri mais lii nit munu koo lay si alquran baqara banaasi nit munu koo lay si xadis gis nga waxul nit yàlla bu daif sax kenn munu ko see lay waxul nitu yàlla bu daif yàlla nit la sunu sëriñ wax na ko mus na see waxtaan yaakaar naa def na ay at na fa jant bi di fenkee sa gannaawam ba fa jant bi di sowee sa gannaawam amul ku mun a wéral na yàlla nit yonent bi ndax yàlla dina xalaku yonent bi sallallahu wa sallam dafa wax si xadis lu wér yonent bi ne wa naasu kulluhum xulkaa nit ñëpp xalaku nañ illal xaalimuuna ba mu des boroom xam-xam yi boroom xam-xam yëpp xalaku nañ ba mu des ñiy jëfee seen xam-xam ñi jëfee seen xam-xam yëpp xalaku nañ ba mu des ñi sellal te ñi sellal ñu ngi si danger léegi ma ñëw si wa naasu kulluhum xulkaa léegi ndax yàlla dina xalaku yàlla du kuy xalaku Baay Ñas radiyallahu anhu xam le gim indi bàyyi dafa ne bi zairi sae wa nuurul mubin u rabbi zalikina bila sakkin wala raybi mu ne man si zairi saria mooy si saria bu leer nañ si xaqiqa bu bër laa yar samay taalibe jam o saria ma a tariqa ilal xaqiqa waral wasiqa bàyyi ne man sama taalibe mooy dangay ngay boole saria jëm si tariqa jubali xaqiqa lii mooy bumbu dëgër bi léegi boo waxee ne taalibe Baay laa wax loo xam ne munoo koo lay si al alquran ak sunna munoo koo lay si sariyatu sa wax ji wéru ak koo manti doon Baay Ñas lépp lu si wax lay na ko si alquran Baay Ñas radiyallaahu anhu am na si ñoom si ñoo xam ne dañuy wax ne xanaa yow bi nga fëggee sa dënn ne maa yàlla yéggoo si fëgg sa dënn maa yàlla te yow nit nga Baay si riyaadu tafsiram Baay di leeral ne nit mun ta nekk yàlla waaye kii waxee si yàlla nit la moom kii waxee si nit ki moom yàlla la waaye nit ki mënut a doon yàlla bàyyi di ko leeral si zahaba Moussa yatlubu naar fara a naar fa izaa hiya laysa bi naarin mu ne Moussa dafa dem di sàkku safara mu dem ba gis safara lam gis du safara fa innama hiya alhadratul ulya li ma gën a soxla bàyyi ne in qaala allaahu fi haqqi insaan laa ilaha illa ana aw ana allah laysa mutakallimu bi zalika al insaan innama allaahu takallama ala lisaanu sajara wa huwa mutakallimu ala lisaanu insaan qaadirun bàyyi ne in qaala ndem wax na allahu yàlla fi xaqi insaan si nit ki laa ilaha illa ana dara man nga gis nit ki naan dara amul lu dul man aw ana allah wala maa yàlla bàyyi mu ne laysa déet laysa déet mutakallimu ki wax bi zalika si loolu insaan di nit mu ne ki wax du nit ñu ne bàyyi kan la bàyyi ne innama allahu takallama ala lisaanu sajara naka yàlla mi nga xam ne moo waxoon si làmmeñu garab ga wa huwa naka moom mutakallimu wax bi zalikal insaan si boobu la nit yàlla moo waxee si nit ki waaye nit mënut a doon yàlla lii nag man lenn rek laa si jàngee mooy ñi wax ne nit mooy yàlla est-ce que gis nañ yàlla est-ce que xam nañ yàlla est-ce que yàlla bi baa yeggale est yegg nañ fa est-ce que yegg nañ fa est-ce que nañ fa bàyyi dafa ne ñetti mbir moo am mbir mi daa manqué du mu sa mat mbir mii daa mat du mu sa manqué mbir mi léeg-léeg mu manqué léeg-léeg mu mat mu ne mbir mu manqué te du mu samat mooy mala yi mala yi dañoo manqué duñ mu samat ñoom ñu matati rek la ñuy def mu ne mbir mi nga xam ne daa mat du mu manqué bàyyi mooy malaaka yi malaaka yi dañoo mat duñ mu sa manqué mu ne mbir mi nga xam ne léeg mu mat léeg mu manqué mooy nit bàyyi ne mooy mit nit léeg-léeg mu manqué léeg mu mat mu ne nag lépp looy gis léeg mu manqué léeg-léeg mu mat lii mat daa dëkkut ci moom kon lii mat fan la dëkk si yàlla mañ na ko ba yàlla ne yaa ayyuhal insaan ndax yàlla dina war yaa ayyuhal insaanu maa harraka bi rabbikal karim déglul allazi xalaqaka yàlla moo yàlla mu ne yéen nit yéen nit ñi yaa yaa ayyuhal insaanu e eh, yéen nit ñi maa harraka ana lan moo leen wor lan moo leen gaar bi rabbikal karim ba ngeen wor seen borom bu tedd bi allazi yàlla mi nga xam ne xalaqaka moo leen bind léegi nit ki dañ ko bind masalan Baay Ñas nee na xadara yàlla bi ku fa yegg doo gis nit Baay wax na ko Baay ne wa'lam anna allaha yajibu abduhu iza taqarraba ilayhi bi nawaafilil xayri xataa uhibbu jazban laa yaarifu abdu fiihi nafsahu wala xayruhu wala jusahu wala kulluhu yaimu an suhidihi fa yastahliq fi siddati istidaari jalla mawlaahu wa ala bàyyi ne yàlla mooy xacc nit ki nit ki yàlla mooy xacc jaam bi yàlla moo lay xacc si boppam su la jazboo nag laa yaarifu abdu fiihi nafsahu jaam bi dafa xam dara boppam nit ki yow gis nga sa nit ki sa nit di la sa sa nit di moo laa la sa nit di nga yëg moo tax yàlla génn moo tax yàlla yiir la boppam léegi nag yàlla bu la xàccee si boppam yow doo ti sa bopp gisa gisati leneen doo gisati sa xaaj doo gisati sa lépp léegi foofu lenn rek moo fay am mooy fa yu saaxidu fi zalika al xaal xadaratul qabla dunia wa badal axira est ce que nit moo fi jiitu aduna xadaratul qabla dunia wa badal axira xadara boo xam ne moo jiitu aduna te moo jiitu àlaxira te lii moo xadara yàlla bi ku fa yegg doo def yàlla nii yàlla mooy nit ñi munu koo lay si fannaa munu koo lay si baqaar billaahi lazi laa la illaa huwa si fannaa dara mun munta lay yàlla mooy nit si baqaar dara munta yàlla lay yàlla mooy nit rawatina nga wutal ko sant kon dëgg-dëgg ñun ñu ngi sant yàlla si Cheikh Ibrahima lii na Baye waxoon na ko Baye waxoon na si ay mbindam Baye ne hazaari hazaari min dahwa iftiraa in lii nag sëriñ bi dama bugg ngeen jëlal ma ko bu baax ñun léeg-léeg suñu xol day jeex si nit ñi askanal gi ñuy askanal yenn bétis si Baye bàyyi moo bind si ay waxam bàyyi ne Hazari maa ngi leen di moytandikoo Hazari maa ngi leen di moytandikoo min dax wa iftiraa in si woote ay kàcc fa hiya ndaka woote ak kàcc xaqan si dëgg te dullu ala raddaaka tegtal la yow mi da ngaa torox te dullu ala raddaaka tegtal la sa toroxaa nga yow mi koy oote woo ñëpp ñu ngi woote woo jokkog pi yàlla bi mii lay ñu ngi woote woo ay aarif lañ ñii ñu ngi woote woo xam nañ yàlla ñii ñu ngi woote woo yegg nañ ci yàlla fii lay laa bàyyi da wa kullu ñëpp yadu mun a ñu ngi oote woo wisaala layla jokkoo ak layla mooy def nañ seen bopp ay punkal waarif bàyyi na nag wa layla laa tuqiru lahum bisaaka waaye naka yàlla nangulu leen si lii ñuy oote woo bàyyi na wa layla laa tuqiru lahum bisaaka kon dëgg-dëgg ñu ngi sant yàlla ci Cheikh Ibrahima dëgg gi mu indi ngalla muqaddamu bàyyi taalib bàyyi nañ wëri abiyaatu Cheikh Ibrahima nañ wëri li bàyyi indi nañ déglu kasetu baay baay amul fenn fu mu waxee ne nit mooy si mbindam si si léppam amul fu mu ko waxee yàlla waxul ne man nit laa yàlla dafa ne man maa ki bind nit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam masalan rek bàyyi nee na Cheikh Tidiane nit di ko gis parce que bàyyi loolu la wax si coutume ta feedarte àq leeg sa si wal muxtaar redrika la insum wala malik mu ne Cheikh Tidiane nëbbu nañ ko foo xam ne nit du ko gis nit xamu ko fa malaaka xamu ko fa waaye léegi ndax Cheikh Tidiane yàlla xamu ko bàyyi nee na nit du xam Cheikh Tidiane ginnaaw Cheikh Tidiane la nit dul xam sakkaa yàlla yàlla mu mënta doon nit wa midaadaahu beneen yoon ñi ngi kontaan bu baax a baax a baax ci émission bi euh, si dalal yi nga xamante ne dalal nañ ko ki nga xamante ne mooy Cheikh Moustapha Leyla ak euh, Zeyda Mama Khady sunu Zakir yi nga xamante ne dëgg-dëgg euh, ñoo doon sikkar muy Baye Tamsir ak Baye Mbay kon programme bi ak agsi nañ ci jeexantal bi euh, du ñàkk dinañ leen jox ku si nekk incha allah mu sant ak gërëm waaye ñun dañuy jaare foofu ala kulli xaalin euh, ñu ndokkeel sant tamit ñi nga xamante ne dëgg-dëgg ñooy internet yi ñu ngi leen di sant di leen ndokkeel bu baax a baax waaye ñu ngi nuyu di ziara sunu sëriñ suñu bunt ci yàlla Seydi wa Mawlaaya Seydi Mouhamadul Moustapha Touré ñu koy ndokkeel di ko ziara bu baax a baax a baax ak euh, mboolem waa daayira axlu faydu tijaan yi ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziara euh, ñu ngi ndokkeel di ziara aussi suñu Zeyda yaa booy Zeyda Fat Dem ñu ngi koy ndokkeel moom it di ko ziara bu baax di nuyu mbooleem ku nekk ci jamaa bi rek ak képp koo xam ne rek yaa ngi doon suivre euh, programme bi ci seen bi Senewood TV ñu ngi lay nuyu di la ndokkeel di la ñaanal yàlla di sàkku ñaan bu baax a baax a baax a baax kon Cheikh Moustapha ñu tàggatoo ak jaamu yàlla yi alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla beneen yoon di julli si bi di gërëm sunu sëriñ Mawlaaya Cheikh Mouhamad Ba waaye nag di wax rek di si benn wax joo xamante ne wax naa ko bi may wax si Seexu Tijaani bi may wax bàyyi Seexu Tijaani yaayam ay sala tudd baayam Abdallah foofu dama fa juum mooy Seexu Tijaani baayam Muhammad la tudd moo tax Muhammad ibnu Abdallah wala Ahmad ibnu Abdallah mooy Seexu Tijaani baayam Muhammad la tudd yaayam Aysa la tudd kon mu ngi sant yàlla bu baax si loolu nga xam ne si njàngaleeg Baay si abiyaatu Baay lañ ko gis kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax waaye di gërëm suñu sëriñ Mawlaaya Cheikh Mouhamad Ba mi nga xam ne moom moo ñu yar si yàlla bi ñuy ñëw si moom ay jaahil lañ la sofiyanke bi waxoon fa wallahi wa laqad na kasiran wa salayna kasiran wa qara'na alqur'ana kasiran wa na kasiran ma arafna rabbana hatta sahitna rijalul ahlamaan muhammad ibnu ajibata moo ko wax ne daanu nañ julli lu bari di woor lu bëri di asaka lu bëri waaye taxawt ñu xam yàlla lu dul dañoo daje góor yàlla bi nga xam ne daa ma tey jamono mu génnee ñu si coono yóbbu ñu si noflaay ñun ba ñuy ñëw di ko jàpp daanu ñu woon julli daanuñu woon woor feneen lañ askanoo woon mooy beneen kër lañ askanoo woon judduwuñ ci faydu du si ndey du si bàyyi bi ñuy ñëw si moom jàngu ñu dara du français du arabe te bi ñuy ñëw si moom 2017 lañ ko ñëwal 2017 2016 tey mu def ñu ay borom xam-xam te ñun ñoo gën a néew xam-xam si jamaam si ay njabootam mu defar ay góor ak i jigéen bay defar loo xamante ne di liggéeyal si faydu bi loo xam ne lu tuuranke la tey si jamono yaakaar naa boo duggee si Facebook bi di fekk ay xale yu ndaw yoo xam ne amaguñ sax vingt ans ay góor ak yu jigéen nekk ay célibataire mu leen di dajale di leen defal concurrence di leen tegal ay kado ngir ñu waxtaanee abiyaatu Cheikh Ibrahim yaakaar naa mu commencé woon ko si ziyaaram am ñu jàll demi final quart de finale am ñu dem demi final ñu ngi am demi final bi ñu ngi koy annoncé waat di ko jox rendez-vous ñëpp nañ demi final bi nga xam ne concurrence la si waxtaan si yàlla loo xam ne musta am si diine ji nag. moom si moom la ko yàlla jaarale waxtaan si abiyaatu baay yi si xadis yonentu si seex waxi seexu tijaani si alquran di si génnee ay fahmu ñu ngi si am demi final troisième jour tabaski daaru mbiteen dëkk papa seex di doomi cheikh ibrahim ñas radiyallahu ñu ngi si woo taalibe baay yëpp di si ñëpp di gërëm ñiñ àndal mooy sunu zakir yi waaye di gërëm daayira biñ bokk mooy daayira fi imaan ñu ngi leen di gërëm mooy ñu mun a solidarité lañ mooy daayira yoo xam ne ay jaam yoo xam ne ñu bëgg yàlla lañ ku fere ku leen fréquenté xam ne ñii seen sëriñ naxu leen waaye seen sëriñ yar na leen si yàlla di gërëm suñuy muxaddamu sëriñ ndeysaan sànq maa ngi xalaat ma ne waroon nañoo wax Baye Niass lan la def si Sénégal mooy damaa dégg suñu benn mbokku taalibe bu baax mu xaddam si ñun koo xam ne man dama koy roy mooy Cheikh Mouhamed Faye ñu koy woowee Cheikh Bakka dafa wax benn wax ne ñun dañoo war a lijjanti dañoo war a Sénégal dañoo war a toog di xalaataat Baye lan la kan mooy Baye di fa fekk ñi bàyyi foofu ñëw wuy si bàyyi te amul kenn ku jugee koo si bàyyi dem si ñoom léegi war ñoo taxaw poser question bàyyi moom lu mu indi lu bokk ak liñ indi lii ku nekk war naa poser question bi ñu ngi koy ndokkeel bu baax moom seen Mouhamed Faye wax ji daf bi ñu ko déggee daf ñoo marqué ndaxte dafa doonee dëgg si ñun ndaxte ñun feneen lañ bokkoon bàyyi loqarti ñu foofu indi ñu si moom ñu gis si bàyyi luñ ñu a gis si kenn te bëri naa si ay morom. laa yanzuru du xool ilaa ajsaamikum suñu jëm mu ne wala ilaa suwalikum te du càggal suñu melo wala kiin waaye nag yanzuru dafay xool ilaa qulubikum suñu xool yi wa amaalikum ak suñu jëf wallahi moo na Cheikh Mouhamad Ba jërëjëf amuñu fayam yàlla bi am fay yàlla ko borom subhanahu wa taala fay macha allah macha allah ñu ngi lay ñu si loolu bu baax a baax waaye sa sa jàpp julli fajar googu lala sa papa waxoon ba nga dajee Mawlaaya Cheikh Baye Mouhamed bi xam nga dëgg-dëgg lam la doon junj. Hmm. lay ndokkeel si loolu bu baax a baax sëriñ bi Zakir bisimilah. aywa alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala Mawlana rasulillah ñu ngi santaat yàlla beneen yoon di am mbégte si jotaay bi nga xam ne nii fii la dalaloon. Eh, di ndokkeel ki nga xam ne ni moom lañ jàkkaarloo woon moo ñu dalal fii waaye di nuyu suñu sëriñ. di nuyu suñu bunt nga xam ne nii lépp luñ man ci tudd yàlla wala luñ mën ci faydu moom la man ci moom laa mënee tudd yàlla ba ma ñëwee ci moom la ma gëmloo ne da ngaa war a nekk tuddkati yàlla yaakaar naa ba may ñëw ci daayirati imaan boo bayti bu mu mokkal bismillah askamuri daal moom kese laa mokkaloon ci bayti waaye boo nekkee ak moom dalay soññ si na nga jàng bayti par force hmm. na nga jàng bayti bàyyi na nga jàng aayal quraan ba guddi gi sax da lay forcé ne jaamu leen yàlla guddi gi di leen jaamu yàlla guddi gi. Mhm. di leen yàlla guddi gi yaakaar naa si moom laa nekkee ba li ma mokkal ci bayti instant bi xaw ma nu maa ngi ko mënee ci buntam kon maa ngi gërëm maa ngi koy gërëm maa ngi koy sant di ñaanal yàlla yàlla yàlla gën a guddal fanam. yàlla may ko wér nga xam ne nii moom solution la ci faydu bi. Mhm. moom rek moo nekk ki nga xam ne nii mhm. moom moo war a dabaatal faydu bi ndax ku tumuraanke la ci faydu jamono ji kon ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam te may ko wér eh, di ndokkeel ñëpp ñu ngi doon suivre ci kii bi ñu ngi leen di ndokkeel bu baax di wax ne waaxiru daawaana ani rabbil alamin macha am na solo lool sëriñ bi waaw ñu ngi nuyuwaat beneen yoon waaye di ndokkeel suñu sëriñ Mawlaay Cheikh Mamadou Ba di ko ñaanal yal yàlla guddal fanam may ko wér saxal ñu ci ronam daay man taalibe moom li koy dolli rek mooy nga nangu ne yow taalibe nga mhm. parce que tey boo demee ba di wax nit ñi di la dégg wala nga génn nit ñi di la màggal wala di la xool dafa am ku jaar foofu ku def ci yow dara ba tax loolu am. ñun mhm. ñu koy sante suñu sëriñ. nga xam ne lépp luñ mel wala lépp luñ xam moom moo ñu ko xamal. Mm. muy Mawla Cheikh Mouhamed Ba. koo xam ne ku laabiir la ku tabe la ci lépp nag lépp loo xam ne jaam bi mu ngi ko yittewoo ci yàlla ku ci tabe la yéwén ci lool. Mm-hmm. kon kooku amuñu fayam. ñu ngi koy ñaanal yenn yàlla guddal fana may ko wér. waaye di nuyu muqaddam sëriñ bi yëpp. dëgg-dëgg ñu ngi leen di nuyu di leen wàccee seen wàccuwaay nga xam ne ñoom ay banqaas dañ ci sëriñ bi ay jàmbaar lañ ci jiital ku ci mel ni Baabul Hadra Cheikh Mohamed fay mhm. waaye ñu ngi nuyu Cheikh Modou Diagne mhm. nga xam ne dëgg-dëgg moom it jàmbaar la ci sëriñ bi nekk ba ngeeñeen di liggéey liggéey bu rëy xubbu tijaani Cheikh Moustapha nga xam ne xam nga ko moom it yaakaar naa moom la sëriñ bi teg si një mu liggéey fa liggéey bu yaatu bu rëy di yeggale nii ci yàlla naka Kangaado Baye Ba tamit naka noonu ak ñoom Baye Moustapha ñoom Cheikh Babacar mboolem muqaddam sëriñ bi daal ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk di la ñaanal yenn yàlla dëgëral la may la fan wu gudd ak wér parce que xam nañ li nga doon ci sëriñ bi. Mhm. muqaddam yëpp xam nañ lan lañ doon bànqaas bi ñu doon sëriñ bi. nga xam ne ñu ngi liggéey liggéey rëy ci dëkk yu nekk ci Sénégal waaye ñu ngi gërëm daayratul imaan yëpp. di ci jiital président bu général di nuyu mboolem président fédération yi di nuyu trésorier yeeg ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaye maa ngi beral nuyoo tamit sama waa fédération muy fédération Sindia Guéréo Ndayane di ci njiital Ousmane fay di nuyu mboolem fédération bi yëpp ak magu taalibe yi si nekk ko ci mel ni Modou Guéréo nga xam ne jàmbaar la ci fédération bi waaye ñu ngi nuyu président euh, euh, Ndayane muy Ibrahima ak Góora ñu ngi nuyu tamit ahlu Sindia muy Moustapha Mayga ak ñoom alaaji waaye ñu ngi nuyu waa fédération bi yëpp nga xam ne ay jàmbaar lañ lool man fédération boobu mooy sama fédération muy Sindia Guiro Ndayane dëgg-dëgg ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ñu ngi lay nuyu di la ñaanal di sàkku ceew ñaan ñu ngi nuyu daayiratu imaan yëpp daal amuñ seen fay ñu ngi leen di beral nuyoo di leen ndokkeel ci ndokkeelu Mawlaay Cheikh Mouhamed Ba yéene bu ñu am rëy na lool parce que même suñu yoon bi ñuy ñëw sax ñoo yëkkati ay paas jox ñu ko. ñu ñëw ci programme bi def solidarité bu rëy rëy rëy. dëgg-dëgg ñu ngi leen di ndokkeel ci loolu waaye di la gërëm yow sëriñ bi di la ñaanal nga xam ne yaa ñu dalal tey. waaye di nuyu ki nga xam ne sawaay la muy Samba nga xam ne jàmbaar la kenn la ci ñun. Mhm. ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal. ponk la ci daayira bi banqaas la ci banqaas yi nga xam ne kuñ fonk la ñun dañ koo bëgg lool ngir fi mu taxawee ñun képp ku bëgg Mawlaay Cheikh Omar Ba jox ko sa dund lépp bañ na ko ba ñu ngi koy tuddee tur muy waaw euh, xubbu baay ba muy ku bëgg sëriñ bi mm-hmm. kon kooku ñun ñu ngi koy ñaanal yal na yàlla dëgëral ko ñu ngi yemale kàddu yi fii ñu ngi ndokkeel ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu macha allah macha allah kon ñu ngi yemale foofu jotaay bi di ñaan yàlla yàlla wane lañu waat beneen yoon ci beneen i jotaay waaw du ñu fàtte aussi ñu ngi nuyu bu baax a baax euh, Baye Samba moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara ndaxte bu lii yëpp amee yàlla ak jëmmam la waaye Cheikh Moustapha tamit ñu ngi koy nuyu xubbu tijaani ndax man bi ma koy xam ci tur boobu laa ko xamee woon xubbu tijaani euh, dëgg dëgg moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara bu baax a baax a baax di wax rek ne ñu ngi nuyu di ziyaara ñëpp. képp koo xam ne rek euh, déggul turam it na xam ne nuyu nañ ko ziyaara ko dañoo mm. mënul matal tur yëpp ala kulli haalin kon euh, axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa amsatu wal abaasu askuru wa sabaqa naasi faxru musannadu ilayka rasulullahi bi wa qaadimun yarumu ridal bari wa fi qulli yaxladu alayka salaamun wa wa minni wa innani ala jawi fi tayha